lisaani foofu ya, xaw assalamu alaykum mbokki juliti assalamu alaykum mbokki taalibe ñoo ngi am mbégte delu ci wat ak yeen ni ngi koy défé dimanche bu jot ci waxtu yi fi ci sen plateforme radio khassida online sen émission diaspora ci eh, xarala bi serigne Modou mbay cham bay Fall ci eh, micro bi serigne Pape Mokhtar tal fele ci Parma geneen wàll wi seen ndongo Pape Demba Dia fii ci Pontedera euh, ñu fas yéene ànd ak yéen nañ koy defee dimanche bu jot euh, dégtalaat leen beneen programme diaspora tey di le 23 février 2020 fas yéene waxtaan nag actualité actualité ci li nga xam ne moom ñuy dund fii kon xam naa balaa may def dara rek may jox suñ pap Mokhtar Tall mu nuyo ma doga dalal nak sunu gan ndaxte dañu am gan suñ Pape bismillah waaw jërëjëf suñ Pape أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ginaaw biñu sante yalla bi ci sang sang yi ñu ngi jiital ci nuyo yi Tafa eh, Bashir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér jël nuyoo di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci bépp kilifa diine ak kilifa aada fépp fu ñu nekk ci àdduna bi e, di nuyu suñu buntu it ci sëriñ Touba di sëriñ Saliou Mbacke Daaru Salaam di ko ñaanal mu yàgg fi lool di nuyu mbokk taalibe yi di nuyu mbokki auditeurs yi di nuyu it suñu jëwriñ yi ci rajo bi sëñ Mahmadan ak sëñ Ibrahima di nuyu suñu technicien Modou Mbaye Thiam di ko ñaanal moom it yàlla na ko yàlla may kàttan bu mën a taqalee fiil a ah, di xanaa dalal euh, sunu gan euh, di la ziar sëñ Pape di ziar euh, Cheikh Mbacke géwélu Xaadim Rasul elage ñu koy jar lu bare di ko wax ne ko namm nañu ko xanaa di la delloo kàddu gi rek xam naa dalal gan gi soo ko dugg ci waxtaan wi incha allah sëñ Pape. jërëjëf sëñ Pape ñu ngi ziar bu baax dama tëjoon micro bi ni nga ko waxee rek ñu ngi dol dellu di ziar auditeurs yëpp euh, waaye nag di jiital ci suñu ziar sunu euh, sunu sunu sunu wasila sunu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, di ñaanal mbooleem di ziar mbooleem kilifa yi diine rawatina sunu mbokk yi nga xam ni. yàlla dafa dogal dañoo bokk Sénégal waaye bokk ñu diine mu di communauté chrétienne bi ñu am ci euh, ay naataango yoo xam ni saa su dañuy bokk ñun di ba di di di partager ak ñun li nga xam ni moo di sunu nekkin wala sunu xalaat ci euh, xew-xew yi nga xam ni moo moo xew euh, tey nag mu ne suta romb benn argument bu dul xew-xew bi nga xam ni moo xew fii ci Italie lëmbee li nga xam ni moo di àdduna bi yëpp daanaka mën naa ni ñaari fan a ngi nii ñun ci Italie nelawuñu bërki démb ba léegi bi xew-xew bi daanoo mu di euh, jàngoro jooju nga xam ni mi nga jóge fële ca Chine ñu tuddee ko coronavirus doon lu doy waar euh, tey ji démb ba léegi daal daanaka bi xibaar yi nga xam ni daanaka ndax dañ doon am ay cas di xel ñaar ak yooyu waaye bi test positivité yi génnee ba ñu dégg ne am na sax ñaar ñu ci faatu euh, daanaka ci la jaxle bi commencé euh, dugg biir Italie ba law lool yaatu waaye nag euh, li muy rëy rëy rëy ci ab ay gox la nekk la nekk gum gox yooyu ñu nekk faak sunu ay mbokki taalibe ay mbokki sénégalais kon mëneesuta bañ a am ak jaxle ak it appréhension boo xam ni dañuy toog di xalaat naka la ñuy dundee foofu ndax ñëpp xam nañ ni xew-xew boobu bu amee dëkk ba mu am daanaka dañ koy mettre en quarantaine mooy maanaam dañuy tëj dëkk bi euh, ñë fa dëkk dootuñu mën a génn ñë euh, ñë fa dëkkul duñ fa mën a dugg te it euh, ñu xam communauté sénégalaise bi ni ñu tasaaroo ci ci ci Italie daanaka mën nañu si ne mënees naa wax ni commune bu nekk euh, am na sénégal yu fa dëkk kon tey jii bu amee ay communes yu ñuy wax ñu ne ci Lombardie bi daanaka fukki commune yoo xam ni euh, euh, mettre nañ leen en quarantaine naka noonu it mu am ci côté Veneto bi ah, du ñu mën lu dul ah, ah, téye sunu sunu sunu sunu sunu suuful waaye it dellu si ñaan Euh, euh, suñu borom ndax ñun ay ay ay ay ay jullit lañu euh, doomu aadama nag ñun dañoo baaxoo bu ñu dara dalee balaa ñu def dara dañuy toog dellusiwaat suñu borom ñaan ko jéggalu avant tout doog nag taxaw def ci ab njàngat waaye mënee su ta def njàngat fekk mënuñu xam la nga xam ni moo xew fa mu xewee ña fa nekk mën ñu raconter situation bi naka lañ ko dundee ak yan disposition la ñu jël moo tax tey jii ñu fas yéene def spécial diaspora boo xam ne dañu ñu a waxtaan ci xew-xew boobu nga xam ni moo xew Lombardie ak Veneto ñu ciy ànd ak nag suñu mbokk taalibe euh, vraiment suñu suñu su kenn ci kenn euh, euh, Faal yi yoon wi doon taalibe waaye doon it jëwriñ ci ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi ñëpp xam ko ci zone Lombardie bi di Sëñ Amet Njaay Euh, euh, muy taxaw ci lu bari euh, communauté sénégalaise bi tey ji ñëpp dégg nañu maanaam déjà rek bi xew-xew bi amee na mu ko defee woon keroog ndeysaan ba xew-xew bi amee Monsa mu defaat nu ni mel yónnee ay audio yoo xam ni du audio caaxaan ndax kenn ci docteur yi nga xam ni ñoo nekk ci hôpital bi moom la génne briefing bi nga xam ni xëy na du ñàkk sax ba euh, euh, des ko du mën a teg waaye euh, dinañu mën a wax lu lu briefing boobu def kenn ci docteurs yi nga xam ne ñu doon def briefingu région ba toog décision yi ñu fa jël prédisposition yi ñu joxe ak it lépp lu fa jóge ci wàllu information ñu nit communauté lañ bu bokk ci ci dëkk bi am benn responsabilité bu mag ndax tey jii Euh, waa Sénégal maa ngi déglu waa Sénégal déjà ñi ngi commencé di xool di wax GP yeeg sénégalais yi ñëw mënee suta bañ a toog def ci ab njàng ñu fas yéene tey jii waxtaan ci euh, bëgg dal dalal nag suñu mbokk suñu amet euh, jox ko mu nuyoo ñu fexe nag ubbi kàddu gi xam naa bëgg nañu sax mbokk yi nga xam ne ñoo féete ci zone yooyu bu ñu mënee dugg joxe ñoom tam seen contribution ngir mën a gindi communauté bi ndax it Euh, jaaxle am na waaye mënees na bañ a jaaxle jaaxle yu métti yooyu ndax it ñun ay jullit lañu te it nag jullit war naa mën nangu ndogal suñu borom ñu xam ne lu ñëw rek suñu borom moo ko teg kon euh, damay jox suñu amee mu dugg da nuyoo ah, ñu doog tàmbali waxtaan bi suñu amet bisimilah. bisimilah. Euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam. wa rahmatullahi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi. maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp eh, di bàll ñëpp àq nag ngir yàlla ak jëm sëñ Tuubaa te di xam ni topp ñu kenn dara ndax ñu xam nañu kenn defuñu dara ñoo amel nit ñi àq <laughs> di sant sëñ Tuubaa bu baax ci dellu siwaat ci jotaay bii waxtaan yi nga xam ni rajo Xassida online mi ngi koy amal fii ci eh, fii ci Italie te mel na fii la kàddu gi di boobu waaye àdduna bi yëpp lañ koy defal kon maa ngi jaajëfal eh, Baye Thiam Baye ci constance am ci doxalinam euh, ci bëggam lu baax te bañ a dégg kenn di siyaar sëñ Pape Demba mi nga xam ni sama jëwriñ la ci toolu sëñ Tuubaa bi sama jëwriñ tamit ci lépp loo xam ni euh, luy defar la ci réew mi yow ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay suivre baax di gis fi nga xam ne fi nga euh, fi nga féete mbooloo mi di sant nag bu baax nag santaat sëñ Tuubaa bu baax ñu ma ko waxee ci dellusiwaat ci ci ci rajo bi ndax mel na ni saa yu saa yu ñu fa dalalee rek euh, lépp ci sëriñ bi la kon ñu ngi koy ñu ngi koy sant Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom moo ñu dimbale loolu. Euh, di siyaar mbokk auditeurs yi nga xam ni ñoom ñuy euh, ñoo ñuy ñoo ñuy ñoo dégg te mu mel na ni ko jëriñ Pape di ma waxee rek xëy na waxew ci xam waaye dañuy indi li nga xam rek moom la ñu jot a dund fii ci gox bi mooy Lombardia ci feebar bi nga xam ne dañ ko doon dégg ñu ko doon dégg Chine mu mel ne lu sore la. mu mel ne fu sore la woon waaye jamono jii may wax ak yéen man maa ngi nekk euh, Touba Milano laay wax waaye euh, zone bi nga xam ne fa la ñu wax ni euh, maanaam fa la fa la fii ci Italie donc c'est à soixante dix kilomètres de Milan kon mel na ni kon lu ñu lu ñu lu ñu jege la waaye it li ma mën a wax it mooy hôpital bi nga xam ni mooy hôpital bi nga xam ne moo spécialisé wu ci lépp lu jëm ci wàllu xeetu xeetu nooy respiration poumon hôpital euh danaka dama nan man fumay may ak hôpital bi euh, matul 10 minutes de marche kon mu melne kon ñu ngi ci biir noyau bi di dund deug deug deug li nga xamni li nga xamni mom mo mom mo amago fi waaw kon señ papa nga xamna dañ doon dañ doon nuyo rek waaw di xamna di len di leen delluwaat kaddu gi tay tey tay euh, taxam inshallah ba alaykum waaw sëñ Ahmed xam naa ni eh, mu ne suta jëlaat kàddu gi te laajuñu la actuellement ban climat la ñuy dund ci zone bi ngeen xam ni moom ngeen nekk jamono yi ndax maa ngi xool sànq télévision gis ñu wone mm, supermarché yi daanaka dara amatu fa nit ñi di rang pour jënd ndox mi eh, mu mel ni dafa commencé dañu commencé am climat de psychose boo xam ni Euh, euh, euh, daanaka la xewoon Chine moo commencé dugg si sunu dëkk bi est-ce que yéen yéen a ngi sentir loolu ak it beneen question bi defe naa ni mi ngi jëm surtout zone yi nga xam ni dañu tëj yéen ngeen xam communes yooyu ndax communauté sénégalaise bi am nañ fa une fort colonie wala wala wala situation bi ci wul noonu. waaw sëñ Pape xam nga foofu waaw xam naa li jëm ci ci laaj bu njëkk bi. suñu borom dafa dogal. Euh, italiens yi xam naa li tax ñoom ak sénégalais yi duñ juboo moo dañoo nuru jikko euh, loolu am na ci ndax euh, man diggante démb ak tey dëgg la ñu ngi ci benn réew moo xam ñu ngi ko boole dans le groupe de sept pays les puis sant du monde waaye ñoom it mel na ni ci information yi nga daan am jamono ji ñoom dañ séntu woon feebar bu sore waaye xalaatuñu woon ne dana yegsee nii ci sama jàngatu bopp bi mu yegsee da a bett mbettel bi li tax ma am confirmation bi moy ci li nga xam ne ñun mom lañu daan won ci wàllu téléjournaux yi day melni ni psychologiquement ils étaient prêts psychologiquement bu leen bété ñoom dinañ mëna affronter liggéey bi waye bu fekkee né tay dañ la wax ni la première contamination bi mu amé donc euh tierce personne maanaam benn ben ben italien normal opéraay la wala jaaykat la mom la feebar bi dal koku dem hôpital waxuñu la ni la dafa wàll ñi mu nekk ci mbenn mais ñi mu wàll mooy infirmier yi mu fekk ci biir hôpital bi kon loolu moo lay wan que ni kon euh, vraiment am na benn genre laisser aller bu ci am ndax effectivement ci biir contamination yi njëkk wax bokk na ci ñetti infirmier te dama jàpp ni infirmier bi moom euh, ginnaaw moom mooy dalal moom mooy dalal euh, ki feebar kon moom waroon na waroon na jekk ndax li ma jàpp mooy naam dëgg la kenn mun mënta xalaat fan lay jóge waaye nag yu mel noonu dama jàkk ni dama jàpp ni structure sanitaire yi waroon nañu waajal ba ku munti doom muy ku yor góom muy kuy saqat muy ku yor boobu metti moom ku ñëw yow da nga jàpp ni kii kat mënees naa am jàngoro ji mais gis nañu que ni donc préparation boobu amu ci. li nga xam ni moo jëm ci li nga wax nii mooy liñ ji ci journaux yi man mii di wax ak yow yaakaar naa sànq déggante nañu bi ñuy déggantee boobu maa ngi ci mbedd mi. Euh, loolu ñu lay wax dëgg la am na am na supermarché yoom boo boo fa boo fa boo fa demee dara desut fa loolu yi tamit euh, euh, maa ngi tuub waaye mel na lu mel ne genre euh, mu tuuti fausse information laa ko war a tudde wala mu mel ne genre psychose boobu ngay wax nga xam ne dañuy tiital nit ñi tiital leen ba nit ñi daw te xam nga italien tamit dafa bokk ci jikkoom maanaam mbir moom bu <laughs> doonee benn moom mu extrapolé rek ba mu yóbbu mu yóbbu diis loolu moom am na ci waaye ex maanaam wax jiñ koy wax waxuñu ko ngir wax ni alarmisme bi amul alarmisme bi am na ndax ni nga ko waxee sànq message biñ dugal démb euh, kuy liggéey hôpital Monza ci biir conseil régional extraordinaire bi am démb moom moo génne moom moo génne loolu te ci biir communauté sénégalaise yi am nañu sunu ay mbokk yoo xam ne dañuy def euh, euh, loolu ñu mu tudd aide aide infirmière am na ci ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi liggéey ci biir hôpitaux yi. mooy aussi auxiliaires yi. auxiliaires yi kon mhm. ñoom it dund nañu yooyu ñoom ba ñoomit it pré alerté la communauté sénégalaise. Mhm. Euh, kon dafa mel ne euh, li nga wax nii nag li ñu li ñu li ñu li ñu gis nii euh, man te Pape li ma waxoon sànq rek waxuma ko ngir xam-xam waaye li may wax mooy sama xalaatu bopp la mooy gis naa ni xaw na exagéré tuuti li xaw li tax mu xaw exagéré tuuti mooy dëkk bu ñuy dëkk bi ñu def en quarantaine c'est tout à fait normal parce que Codogno diggante Milan ak Codogno soixante dix kilomètres la. Mhm. Podogno mi ngi bokk ci biir province Lodi. Mhm. mi ngi mel na tey nga ne région de Diourbel département de Diourbel arrondissement de Ndoulo wala yooyu donc Podogno da nga ko jàpp ne arrondissement la ci biir euh, ci biir Lodi. Mhm. donc noyau bi nag moo nekk Podogno donc foofu la foofu la feebar bi euh, foofu lañ ko gisee. foofu la ëpp ñu contaminé donc foofu la noyau bi. kon Codogno moom fi ne boo duggoon actuellement nii euh, Google Maps boo dugalee Codogno da ngay gis toutes les rues de Codogno euh, tali yep dañ ci def sens interdit. Mhm. donc mel na ni Codogno kenn mënul génn kenn mënul dugg. mais du càgg ne dañ fa tek nak force de wax ni la divieto d'ingresso déedéet mais ci map wax nañ leen ni len bu kenn dem na ñëpp nek seen bir kër. Moy moy ni ñi wax vietato al transito. al transito voilà vietato mhm. al transito. Euh, nga mhm. xam ne sax ñoom décrété nañ wax ni école yep tej nañ ko. Euh, regroupement rencontre sportive yi doon am politique euh, euh, Kiese yëpp tëj nañ ko wax nañ sax ñoom ba ni seen seen ndaje yi ñu daan def chaque dimanche ci Kiese donc ren tey jii ci biir rajo bi lañ ko defee nga xam ne kon population ko dañoo dañoo mën a jàpp seen rajo di déglu messe bi nga xam ni xëy na moom la seen église def. loolu la ko war rek mooy dañuy bañ nit ñi génn te bu ñu génn xëy na peut-être virus bi mën na propager wu. Mm-hmm. dégg nga sax ñu wax ni képp koo xam ne feebar bi dal na la. ñu wax la ne bul dem pronto secours parce que boo dem pronto secours kenn du la jël comme ñoom li ñu wax mooy ci feebar na toog biir këram ñu fekk ko fa defal ko tampon ndax bu xasee ba génn diggante bi muy dem diggante këram ak hôpital mën na fa contaminer keneen wala mën na bàyyi germe bi ci mbedd mi te ginnaaw tamit xam ngeen ni euh, mbedd mi ngelaw lii loolu lépp kon day mën a day mën a donc véhiculer taux day mën a véhiculer donc germe yooyu moo tax ñu wax ni ku dal wala nga santé yenn symptômes yi da ngay woote 112 d'ailleurs sax même le numéro 112 dem na ba dafa ba dafa mujj bloqué tellement appel yi dafa bare. te mm-hmm. sax xam naa ne euh, balaa ñuy daan dinaa la joxaat benn numéro am na benn numéro bu ñu bu ñu bu ñu joxe boo xam ni foofu ngay woote boo wootee ñoom ñu yónnee médecin bi médecin bi ñëw xool sa température diagnostic la bu fekk ñoom gis nañu que ni feebar bi la donc ñoom ñu commencé la defal ñu commencé la defal yenn tampon yi. kon psychose boobu moom am na au niveau de la au niveau de la Lombardia te li ci xaw a dangereux mooy. feebar baa ngi ko dojo mais actuellement ñëpp koy dund fi ne nii ñëpp koy dund donc supermarché dëgg la tey jii fi ma demoon ndox amu fa mburu amu fa daanaka meew amu fa kon donc yooyu mu doon peut-être euh, denrée alimentaire de première nécessité yi moom nit ñi daw daw jëndi euh, te loolu li tax mu xaw a dangereux mooy buñ ko defee alarmisme day am te Lombardia du zone bu tuuti kon ci wàllu xel mënu ñoo tëj Lombardia bi yëpp wax ni bu kenn génn ndax loolu boo ko defee te mayu nit ki mu waajal boppam dem jënd li nga xam ne moom lay soxla waaw bu toogee biir këram la mu yor ci parce wala ci meew mu jeex faw mu génn ndax mun bañ a lekk. Mm-hmm. Euh, loolu moo tax man may wax ni euh, dafa am ay rumeur yu am rumeur day am ni daw leen ngeen jënd gaaw ndax dañuy tëj supermarché suba effectivement message boobu sax moom la ñu véhiculé fi ne nii. Mm-hmm. jot naa message dañ naan dem leen ngeen jënd gaaw ndax suba dañuy tëj supermarché yi mais nit ki mënoo xëy suba tëj supermarché. te mayuloo population bi ñu mun dem duggu lo xam au moins dina leen servir pour une semaine parce que boko ko deful ñoom lañ yor sen sen kër as as ñëw bu jéxé faaw ñu gën ci mbéd mi bu ñu gënné fekk négoce yëpp tëj faaw donc manifestation am donc yoy day indi waat yeneen i problème mhm. waaw kon xam ni ci walu en général moom euh, lolu moy situation bi euh, bi nga xam amna am na euh, dëgg la nag tëj nañu école yëpp du école yëpp dama naan mbollem lu nekk Milan et province tëj nañ ko Euh, ndax man ci daayira Milan bi laa bokk mais maa ngi maa ngi maa ngi dëkk province Varese man fi ma dëkk ni école bi nga xam ne fi laa nekk nii moom kenn tëju ko mais lépp loo xam ne donc mooy Milan et province moom tëj nañu école yi wax ne donc xale yi duñu jàngi suba loolu yi tamit lu normal la euh, ndax it ginnaaw ñoom dañoo wax ni fépp fu mbooloo di daje nañu fexe ba mbooloo bañ a daje kon école ay xale fay nekk euh, te xam nga li xaw doy waat ci feebar bi sëñ si Pape mooy genre soj rek donc hmm. mën na dikkale genre soj yow kon nit ki mën na ñëw jàpp ni dafa soj te fekk na lool lool lool la lool la la yor wala comme période bi nga xam ni euh, sibiru bare na grippe nga jàpp ni xëy na da nga yor influenza te na te te fekk na loolu la beneen bi ci nekk di mooy période bi toujours saqat si yëpp avant avant coronavirus bi am yëngeen nii temps yëpp ñu doon wax ni donc influence li mu tëral ci ay nit bare na kon nit ki mën na ko am jàpp ne influence te fekk na mari taali mu tudd say loolu du kon man mesure de prévention yi nga xam ne moom la région Lombardia bi jël dama jàpp loolu moom lu normal la. Mhm. Euh, mbir bu ñëwee bett la. te yow mu bett la bettin boo xam ni ña nga xam ne ñoo war a faj ñooñu la contaminé kon li gënoon mooy ñëpp dal toog toog toog seen kër ñoom ñu def ñoom benn étude beaucoup plus beaucoup plus approfondie di fexe nag donc ba gën a mën a ba gën a mën a cerner waat le problème moo tax ma jàpp ni loolu moo tax kon ñoom ñu génnee ñu génne donc décision yooyu. li nga xam ne moo jëm ci wàllu communauté sénégalaise bi. Euh, fii may waxee yow nii euh, ci biir activité daayira yi euh, xam naa ni duma mën a wax ci yeneen daayira yi waaye lu mel ne Touba Milano jëwree ñi li ñu décidé mooy activité bépp activité daayira Touba Milano tëj nañ ko daayira sax dama waroon def communiqué officiel bi pour jegal ko daayira bi foofu it la ko waral dafa am ñaari mbir yoo xam ne saa su dañ ko war a sóoraale ci suñu liggéey te lii may wax ni ñu ngi koy wax ci turu Milan waaye dama yaakaar ni la ma waxoon keroog ci message ba bi sëriñ Murtada Mbacke di diggal wa Touba brecha ñetti kamil yoy mu leen doon diggal ba jamono dem mu mel dañ ko xawa bayyi mu mel ay jafe-jafe amono na fa serigne Abdou Khadir Gueye jëruñ waa serigne Abdou Khadir ay jamono. Mm-hmm. dem fekk pari waxu ko. dafa ni ko xana da ngeen bayyi ñetti kamil yoy mu leen digaloon. ci Abdou Khadir Gueye ni ko ah waa ne mënu ko. leen ngeen di jang ñetti kamil yooyu leen koy def jam rek ngeen di am ci rew mi. kon dama japp ni bu sëriñ Murtada diglee loolu wa brecha waa Barichak dégg waaye képp kuy murit te nekk ci réew mi te nekk daayira war nga mën a saxal ñetti ñetti kaamil yooyu. Mm-hmm. sëriñ Muntaxa fi ne bu jëlee bu jëlee ndigal bu ko joxee bu ko joxee murit ba nekk Touba ak murit ba nekk der ñoo ci yam mm-hmm. euh, kon mu mel na euh, loolu euh, xew na kon kon li may wax ni milan laa koy wax waaye nañ dama jàpp ni murit yëpp war nañ cee war a mën a jàng. xam nga wax nga sànq nii dans yaa une semaine deux semaines jafe-jafe boobu ñu amoon au niveau de Touba Monza. Mm-hmm. nii xëy na mbirum àddina wala xëy na mbirum réew mi nga xam ne kenn du fi laal gone kenn du fi laal jigéen xëy na ñoom ci loolu lañ jaar ba indi ay jafe-jafe ci kër Sëñ Touba gi ci Monza. Mm-hmm. ma wax leen ni leen ñun ñëpp xam nañu ni situation bi nga xam ne ancien ministre de l'intérieur bëgguma tudd turam. Mm-hmm. la moom moom la fi indi. loolu def na benn psychose boo xam ne daanaka tubaab bi yëpp am na noo xam ñu ngi koy gis lislaam te su ma jëlee kaaw Milan kër Sëñ Tuubaa gi ci Milan jamono ja ko ñoom bàyyi ko sa ñag di jënd yàlla na ko yàlla doolu yërmande mhm. jamono mhm. kër gi kër gi doyoon na ci ñoom yemoon na ci ñoom mhm. boobu ñoom bàyyi ko sa nekk ñu foon ak seeni soxna nekk ñu foon ak seeni doom waaye jamono jii nga xam ñun ñoo fi nekk muy yow muy man muy euh, Modou Mbaye Thiam ak keneen ku nekk macha allah yaa ngi fekk sa soxna yaa ngi fekk sa njaboot kon la ni kër Sëñ Tuubaa gi ñu am ñun doyatuñu ba Mhm. ñàkk am leneen tax na mbooloo mi ni ñuy wuy see woote sëñ Tuubaa bi dañuy dem kon ba dañuy déranger euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu bokk dëkkal. Mhm. kon léegi foofu lu ñuy def mooy su fekkee ne ministre euh, euh, région Lombardia dafa génne benn décret wax ni lépp luy attroupement dañ ko war a arrêté kon ñun li ñu war mooy appliquer loolu ci ni mu gën a gaawee. Mhm. pour ñaari mbir benn bi mooy ñun dañoo dañoo ñëw ci réew jàmbur kon. dañoo waral a respecter loi réew mi beneen bi ci toppin mooy li nga xam ne moom lañu yor ndimbal sëñ Tuubaa moo ci nekk waaye amul néew nañ ci kër sëñ Tuubaa yoo xam ne nekk nañu en règle mhm. euh, donc avec euh, mu tudd avec les normes hygiéniques wala normes de sécurité yi wala yëpp mhm. kon yooyu boo amee possibilité mën na mën a nëbb sa loolu da koy def mhm. loolu moo tax masala fu mel ne Milan dañoo wax ni kër sëñ Tuubaa gi lépp luy activité dañ koy arrêté Euh, fi may wax yow nii gaaw bi ñu jëm samedi bi ñu jëm le vingt le vingt neuf yaakaar naa. Mm-hmm. ñu ngont xasida goo xam dañoo dajale mbooleem kuréelu yi nekk ci Lombardia bi ñu war a daje ci kër Sëñ Tuubaa gi ci Zingoña ngir defar benn ngoon xasida jàng alxuraan jàng xasida te boobu jubluwaay bi rek moo doon ñaan jàmm ci réew mi. Mm-hmm. waaye foofu ñu nangul ñu ko waaye sëñ Abdou Diop mi nga xam ne moo ko jiite. moom bi mu déggee information moo wool boppam waa Digos waa xam na ko ni ko waxuñu sax. maanaam attroupement waaye lépp luy manifestation ci seen biir daara jooyu bu yóbboo ngeen tëj ko te mm-hmm. loolu li tax ñu wax leen ko mooy euh, mooy bonne collaboration bi am entre diggante Digos ak Kër Sëñ Tuubaa ci si Ngooña kon yooyu buy am muy doon ay pousse bi dama yaakaar ni sénégalais yi en général ñëpp ci war a jàng ñëpp ci war a profité maîtriser situation boobu mm-hmm. kon euh, lii may wax nii mooy li xew mi laa Kër Sëñ Tuubaa gi euh, tëjagum nañ ko te du tëjub kenn du fa dem waaye tëjub respecté loi réew mi la ndax sëñ Moutada daan nañu wax ni moytu leen àq dëkkandoo. Mhm. loolu sëñ bi tamit daan na ko wax ndax ñii suñu ay dëkkandoo lañu. te ñu fiy ñëw woow ñu ñoo fi ñëw suñu bopp wala sëñ Tuubaa ñu fi indi. Mhm. kon lépp lu ñu fi mën a ba respecté charte réew mi dañuy gën a mën a dimbali. te mhm. ginnaaw ministre bi fi nekkoon jéem na fexe tëj kër sëñ Tuubaa yooyu yëpp. yëpp pour na ko tëj. tey jii masala tey bu waa Milan forcé dem di ñi ñoom déedéet ñoom mënuñoo bañ a def seen guddi àjjuma dañuy dem bu ñu demee ci guddi àjjuma jë waa condominium bi mun nañu woo police municipale su boobaa su police municipale ñëwee maanaam tëj ba ko police municipale tëj ubbi ba du yomb. Mm-hmm. mën nañ fa jaaree donc ñoom lañu bëgg def ñu def ko. Mm-hmm. moo tax man may lancer appel mbooleem ku fi nekk te yor kër Sëñ Tuubaa yow tëjal kër gi si sa coobaree bopp. boo ko tëjee sa coobaree bopp boo demee ba dégg ni ñoom ubbiwaat nañ seen i kees ña ngay def def seen kees su boobaa yow nga mun ubbiwaat sa kër Sëñ Tuubaa Mhm. waaye bu fekkee ne da ngaa bëgg def dëgër bopp na daal ne man kenn mënu maa dem jàng fa alxuraan ak xasida jàppal ni boo ko defee dinañu woo police locale te bu police locale xasee ba ñëw faaw mu constaté te bu mhm. constaté lëkk tëj ubbi ko loolu yaakaar naa ne Pape Demba ci waxuma nag ci wàllu xam-xam mais ci wàllu jàngat rek mhm. xam ne xel mun na ko nangu yaakaar naa ne loolu loolu lu xel nangu la kon loolu mooy situation leneen li ci nag mooy mbokk Sénégal yi nga xam ñoom ñoo dëkk ci gox boobu ngay wax bu dee wàllu Codogno xamuñu fa exactement ñun xamuñu exactement ku fa dëkk. Hmm. waaye Codogno dafa nekk diggante euh, diggante mila ak Cremona. Hmm. te Cremona sorewul euh, sorewul Brescia donc Pontevico ku ne Brescia da nga naan da nga naan da nga naan fee Pontevico te même Cremona boobu am na ay cas yu fa am te Cremona ay taalibe suñ Tuubaa nga fa bu ñu fàttali ko yàlla Sëriñ Murtada hmm. siyaar mujj siyaar Cremona lañ ko lañ ko saaroon ca stade ba. bu fekk ni boobu ñu ko ko bëggoon defee Pontevico. Mhm. comité Pontevico interdire wax ni kenn du fi defee marche. Mhm. ñu ni koon char bi waa commune commune Crémona ñooñu ko nangu nanguloon. Euh, walaay si sama xam naa maa ngi jégalu sax ndax yooyu da yóbbu ci yenn situation yi. dëgg la waaye waaye dafa baax ñu ñu leeral lépp rek. noonu ñu ngi def noonu la yaa ci yoon wi. waaw ah, keroog maa ngi fàttaliku bi ñu demee Crémona stade bi yëpp fees. sala mm-hmm. ci ci maanaam ci euh, ci sellam boobu lañ ko mujj gis ndeysaan digle yamu yamu noon jox weesuwul euh, li yàlla digle da ngeen ko def te li mu tere da ngeen ko bàyyi mm-hmm. euh, sëñ Pape Demba li may wax ne sëñ Tuubaa kenn du moom mm-hmm. lañ ñu doon tere Brescia wax ne kenn du fi marché diggante stade Cremona ba sëñ Tuubaa Pontevico fu sëriñ Murtada jaar ay ay motaar ñoo ko escorté motaaru Euh, mënul commune yi nga xam ni moom la sëñ bi doon moom moom moom loon traversé pour dem pour dem pour dem donc Karama nga xam ne ñun lañ ñu doon bañal sax ñoom ñu ko mujj defal faf mm-hmm, mm-hmm. bi ñuy siyaaree Serigne Moutada ba ba pare bi sëñ bu duggee oto ba tëj bunt bi wallahi azim ku ko fekkee xam na xaw ma ndax yéen ngi foon keroog taw bi daa sóob mm-hmm. keroog am na Sénégal yoo xam ne ci autoroute bi la ñu wàcc ubbi daal ni faaw ñu bàckeelu ci ndox mi kon loolu dafa doon ay mbir yoo xam ne Serigne Moutada lim ñu digal xam na fi mu bëgg ñu def suñu tànk te lii mooy yoon wi mooy nit boo ñëwee ci réew fekk fa loi réew mi da ngay appliquer loo espoir réew moomu boole ca nag la nga indi li Ibrahima Ndiaye di wax naan bi ñuy ñëw jaaro jaaro jaaro jaaro xàlle lañ ci indi dal rek ñu jaawale ak përëm réew mu ñu ak suñuy aada ak suñu cosaan yu dëgër yoo xam ne ci valeurs positives yi fekk ci réew mi donc nous allons devenir des immigrés exemplaires kon ci wàllu foofu noonu crémoon Sénégalais nga fa ñoom it organisé woon nañu noo xam ne ba ñu déggee loolu ñoom dañu daal di dakkal seen mboolem activité ku tamit di déggante ak waa Brescia ba bu fekkee ne xëy na ndax Cremona moom tëjuñu ko moom dañ ko tëj moom dañ ko tëj vraiment donc kenn dematul kenn dikkatul lodi nag bi nga xam ne nag moo moo ko foofu am na daayira Sëñ Tuubaa ba fa nekk wax dëgg yàlla ay nitu jàmbaar yoo xam ñoom it mbir mi amee woote nañu ba daje seen biir wax ni képp koo xam ne yaa ngi ko doo ñëw te doon sénégalais te te mënoo dem te soxla ndimbal moom ñoom boo woote ñoom dinañu organiser ba lépp loo soxla mooy daara alimentaire dinañ la ko indil. Mm-hmm. loolu daal mooy situation bi nga xam ne léegi li ci des nag mooy li tubaab naan passe parole la fexe donc ba information boobu sénégalais yëpp yëg ko. loolu moo taxoon démb bi euh, bi conférence de presse boobu génnee au niveau de la région Lombardia ñu fexoon nag ba jël kàddu Sonasoos nga xam ne fa lay liggéeyee euh, nag doon ko jéem a ngir wax ko sénégalais yi. Hmm. xam leen que ni kon situation bi am na. feebar yegsi na ñu ngi ko doon dégg Chine waaye mi ngi fii ci biir hôpital sako hmm. hôpital sako euh, du ma ni c' est le premier hôpital mais c' est l'un des deux hôpitaux les plus euh, les plus référentiels au niveau de Milan. Hmm. Euh, euh, fi ne boo fa rombee sax télévision yaa nga fa ak seen antenne parabolique nga xam donc ñoom foofu la ñuy émettre seen journaux fa la ñuy defee seen yi. c'est c'est c'est c'est ñu donc reportage. boo boo foromee nag day day mel ne kon situation vraiment situation bu grave la. Mhm. Euh, li ko waral rek mooy ñi nga xam ne ñoo ñoom la ñu contaminé te ñu nekk ci benn phase bu xaw a délicate foofu la ñu jóobu ndax parce que hôpital boobu moom moo spécialisé wu ci lépp lu jëm ci wàllu. Euh, ci wàllu poumon euh, poumon donc wàllu wàllu donc wàllu donc respiratoire. waaw kon xam naa daal suñ bu fekkee ne xëy na amul lu ma tëb daal. Mhm. loolu mooy Sénégalais yi nag wax dëgg yàlla. que je wax toujours gars les euh, sénégalais nit ku bax la mhm. sénégalais bu djoumé rek parce que mhm. gis nga euh, motax les am benn mbokk taali bu ni ma lépp loo dégg ci italien traduire les ci wolof ko nit ñi mhm. ndax sëñ pap dem ñun ñi nga xam ne amna luñu am tout ci italien bi des fois am lu ñu pas expression am nang koy déggé ak du bok du bok contexte bi nga dafa daara ja ndimbali sëñ Tuubaa tax mu ñëw Italie dafa ñëw rek jubal ca tool ya. Mm-hmm. kon kooku italien bi mu dégg mooy italien bu bu littéral bi maanaam bu. italien littéral bi mm-hmm. voilà littéral mm-hmm. yenn yenn yenn baat yi du ko mën a xam. kon ku mel ne yow ak ku mel ne nañ ji nekk ci biir euh, kii bi xëy na suñu boroom dimbali leen ñu ñu am benn dégg-dégg bi bu yooyu amee euh, wax dëgg yàlla ñoo ko war def te yaakaar naa ni ngeen ko defee nii man jàpp naa ni émission bi dina dina dina dimbali ñu bare. Mhm. xam naa foofu dama ci profité rek ngir lance waal message yi mooy dafa am ci sunu aada ak sunu cosaan loo xam ne naka jekk mag ñi dañ ko daan def mhm. mooy kër goo fanaan wala néeg boo fanaan boo xëyee suba da koy ubbi mhm. ngelaw li soppeeku loolu wax nañu Serigne Saliou daara yi nga xam def na ko euh, fële proxaan daan na fexe ba ba defaree daara bi defar boo xam ne bu ñu xëyee suba rayon soleil dañuy bëgg dañuy mën a dugg ci biir néeg yi mm-hmm. te loolu tubaab tool loolu hygiène euh, loolu mu tuuti éducation Sénégal jàngale na loolu mm-hmm. wax ni mm-hmm. boo ubbee suba rayon soleil bu duggee ci biir néeg bi doom lépp luy germe wala lépp luy microbe da ko fay jële te loolu bokk na suñu aada kon ñu ngi fàttali sénégalais yi ni réew mi xat na dañuy daw bay bëgg a dee da ngay liggéey huit wàcc vingt deux heures boo ñëwee li nga njëkk xalaat mooy fay say bor julli woo sa njaboot tëddaat boo xëyaat dem waaye loo yàkkamti yàkkamti na nga ubbi sa parenteeru néeg ubbi sa parenteeru kër xet gi ci biir kër gi soppeeku mën a mën a mën a mën a dem changé wu xëy na loolu du saafara jàngaro waaye dinañ mën a dimbali mm-hmm. ne li ci topp ci euh, mesures yi nga xam joxe nañ ko wax nañu ni nañuy euh, nañu am habitude di raxas suñu loxo ak saabu mm-hmm. mais ak saabu ordinaire wala wala wala donc désinfectant yi xam nga li ngay wax naan genre psychose bi Euh, mercato bi ma lay wax am na benn genre produit bu boo xam ne xew na mooy mooy genre désinfectant yooyu. Mhm. maa ngi gis doguma la maa ngi gis ci Amazon bi ñi ngi jaay ñeenti tube yu ndaw ah yoo xam ni mi ngi daan ah jar trois euros et quelque ñi ngi koy jaay ah cent neuf euros. très bien xool loolu suñ bi ci Amazon bi li eh nga jëri maanaam eh, mu tudd ma kii yi mu tudd mooy genre masque yi masque yi nga gis nii euh, démb euh, pharmacie bi ñu demoon.

bi ma nee Brickman masque amatu fa. Mm-hmm. léegi rek maa ngi tooñ sama beeg mbokku taal si Aliou Diop ma ne ko yéen waa Touba Toscana bu yóbboo ngeen jël ñu ay masque indil ñu ko Lombardia parce que Lombardia am amatul masque fi ne nii. Mm-hmm. waaw nga xam ne loolu lépp sëñ bi maanaam li ko li ko indi rek xëy na mooy situation bi kon. Mm-hmm. ñun li ñuy def mooy ñoom ñoom li ñu wax dañu wax ni képp koo xam ni yaa ngi wax ak moom te sa xel dallu ci moom. Euh, buy wax ak buy buy buy buy buy wax ak yow buy bu bu yarul masque na nga sa loxo ci sa bakkan ak sa gémmin wala yow miy wax ak moom mm-hmm. ngir bañ gelaw lii génn ci gémmiñ bi yow nga koy noyyi mm-hmm. euh, ñu wax ni tamit feebar la boo xam la koy joxe mooy xëy na tisooli wala sëqët wala xëy na wax ak nit xëy na kàttam ni muy génnoon yow nga nga noyyi loolu euh, mu daal di mën a nga daal di mën a fa jël feebar bi mais sëñ Pape Demba leneen li ci gën a yéeme mooy kodoñoo googu ñu wax ka nga xam ni moom la ñuy wax ni mooy chinois bi nga xam ni moom moo moom moo wàll italien boobu ñuy wax. Mhm. chinois boobu moom feebarul. moom ki ñuy wooyee il patiente zéro. fii yëpp itam patiente zéro. très bien maanaam xam ne kooku moo indi feebar mais moom feebar moom tëralu ko. Mhm. loolu lii ko war a mooy feebar la boo xam ne mën naa dugg ci biir nit. nit ki su moom dimbal ko mu am ay anticorps yoo xam ne day feebar rek day xeex feebar boobu te du ko te du ko tëral. Mhm. mais noonu aussi lay mën a dem ci kañeen moom da koy laal rek daal di koy tëral ci saasi. Mm-hmm. mais teewul na kook nga xam ne moom mel na ni mi ngi feebar bi te tëralu ko mais kook kon moom dañ ko war a mettre en quarantaine parce que moo tax ñoom ñu naan la dañ lay mettre en quarantaine pendant quatorze jours pour xool ba xam ndax ci quatorze jours yooyu feebar bi dina la dina la daaneel wala wala wala déet kon daal loolu mooy situation bi nga xam ni moo si nekk ñu nag suñu wàll nag moom ñu ngi def suñu kéem lay kattan donc lancer le message le plus le plus le plus largement possible ni ma ko waxee rajo xasida online tamit war dëgg yàlla moyen la donc pour ñu mën ko véhiculer donc jàllale ko ñëpp yëg ko te di ñaan tam ñëpp sàmmoo ak charte réew mi ndax loolu mooy li ñuy dimbali ndax li ñu fi amakus néew mooy sunu daayira yi ñu am li wóor ba wooy ministre de ministre ba ministre ba ministre de l'intérieur ba fi jóge képp koo xam ne def nga forcing daal ni da ubbi sa daal dinañ ko tëj te buñ ko tëjee moom la koy ubbi moom yomb kon nag ñu tëjal ko sunu bopp ubbi ko suñu bopp loolu moo gën a wóor daara yi nga xam ne ñu ngi fay yóbbu suñuy doom ñu fay jàng une fois par semaine wala deux fois par semaine benn semaine ñaari semaine ñetti semaine ñeenti semaine bariwul mhm. li may wax gaa yi toujours dama ne leen donc lii mooy première semaine de contamination bi Italie démontré que ni am nañu benn lacune mais nañu may nañ leen may au moins semaine bi jàll bu semaine bi jàllee ñoom bu ñu jëlee ñoom seen i euh, seen i mesure xëy na dinañ mën a cerner le problème mais actuellement mënuñu ko cerner parce que diggante ak alxames la ak samedi ak dimanche kenn liggéeyul diggante boobu ñoom tooguñu région Lombardia kon li wóoru wóor mooy bu ñu tëjee école yi à partir de lenn ñoom dinañ mën a am donc une idée te tamit ñu xam ne sur le plan santé Italie réew mu am doole la réew la boo xam ne am na ay am na ay experts ci wàllu ci wàllu vaccination am na yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo ko découvrir kon suñu borom may na leen ñoom it xare nañ mtudi xare euh, euh, xarañ nañu kon euh, la ma doon wax daal di ñaan gi nga xam ne moom la ñuy ñaanal Sénégalais yi di ko ñaanal julli di faaw kon tamit ñu ñaanal ko waa réew mi ndax boo nekkee ci réew réew moom bu amee jàmm yow da nga nekk jàmm mais bu nekk jàmm doo nekk si jàmm kon nag ñu li ñu waral mooy tamit ñaanal tamit jàmm gi am ci réew mi ba feebar bi dal mm-hmm. loolu mooy mën a tax ñun tamit ñu mën a ñu mën a dund ci jàmm ci réew mi mm-hmm. waaw da naa si bab xaw naa xaw naa xaaba bal waaye loolu mooy première impression yi nga xam ni mm-hmm. xëy na moom laa moom laa teew doom ci laaj bi ma laaj <laughs> jégal baax nag jërëjëf Pape Tall waaw jërëjëf sëñ Pape jërëjëf ñu ngi ñu ngi kontaan loolu vraiment ci lecture bi nga xamante ni sëñ Ndiaye def na ko mu doonoon lu am solo ndax nag euh, comme wax dëgg yàlla euh, gën a jege gën a yey ndax moom mi ngi nekk au cœur de la Lombardie euh, donc jaadu woon na ñu am benn témoignage par rapport ak statut sociale bi nga xamante ni moom mooy dox foofu Euh, ban jàngat bi may def ci coronavirus bi euh, mooy mm, bon c'est vrai euh, yëf yi egsi na c'est vrai tubaab yi xalaatuñu woon ni dina am dayo bu tollu toll parce que buñ ne dayo sax dañ naan nombre de morts yi fu mu toll mais je pense que ba ñuy waxee nii nombre de morts yi ñu ngi toll ci ay trois wala quatre suma juumu la parce que comme Euh, information yi day ajourné wu rek je pense que trois trois morts lañu euh, ñu euh buñu défé histoire touti ci bi muy eggee bi mu nekkee Chine euh, Chine ci danaka quinze jours ñom ñu ngi égg ci huit morts donc je pense que dañuy wax ben virus bo xamni dafa am évolution bu doy euh virus bi ni muy évoluer mo mo gaaw ba noppi hmm. euh, temps bi ngay metre nit euh, ci euh, incubation ne ak nit mën naa egsi te du du du du manifester virus bi léegi léegi nii toogaat quelque temps soog koy manifester déglu naa te journal télé régionale tey am ku ñu defal tampon gis mu negative ñu toogaat lu yàgg defaat ko gis mu positif ñu toogaat ba ci yàgg defaat ko gis mu négatif donc en fin de compte mu nek ben ben affaire bu bu doy war bo xamanteni da nga nan li est ce que du nap suñu borom bu dal ci ci kaw euh, aduna bi euh, man aussitôt mo ñew ci sama bop est ce que du nap yalla suñu borom mo moo euh maintenant nattu yalla la wala natu yalla la nañu jël kurusi rek ak ñaan euh, jang alcorane ta tek kamili jang ko ñaan yalla suñu borom mu safara ko ci nu mu gëna gaawé euh mais ñun ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñun doonoo wàlliyaan si ñuy ay immigré euh, am nañu ci zone Codogno Casalpusterlengo euh, Lodi euh, ba benn côté Piacenza bi man sori wuñu ma ndax man daanaka maa ngi nii wetu Cremona su ma dawee quinze minutes dugg Cremona ba ci Cremona bi Euh, suñu mbokku sénégalais yooyu vraiment sëñ Ndiaye euh, daayira Cremona boobu dañuy saluer wax dëgg yàlla seen taxawaay boobu ñu def parce que euh, biñ koy wax sama yaram mi ngi daw ndax ñoo xamante ni ñu ngi toog di ay mbokki jullit di ay mbokki taalibe di am benn sensibilité bi par rapport ak ñële nga xamante ni ñu ngi leen mettre en quarantaine ba di leen di wax lépp lu ngeen soxla ci denrée di première nécessité wax leen ñu ko ñun ñu taataan ko fexe nu muy àggee ci yéen kooku wax dëgg yàlla forme de solidarité la boo xamante ni vraiment salutaire salutaire kooku euh, wax dëgg yàlla dëkk yi nekk aux environs te amuñu nekkaguñu ci situation bi war nañu mën a jóg ñëpp it am doxin woowu parce que suñuy mbokk sénégalais lañu suñuy mbokku jullit lañu mënuñoo génn mënuñoo dem te ni ñu ko waxee ni euh, tubaab yi jël nañu yëf yi def ko benn alarmisme boo xamante ni man je dis que c'est pas du alarmisme quand parce que tam liñ fi wax yëpp ay forme de prévention rek la <laughs> mooy li olof di wax rek xob ko bala ngaa lakkale parce que xale yi weekend xale yi dañuy dem ñi dañuy dem jiita ñi dañuy dem feneen xamoo fu ñu dem ku ñu dajal ku ñu waxal maestra yi noonu euh, et cetera et cetera pullman yi euh, train yi donc c'est très normal nga suspendre école bi c'est très normal de mettre en quarantaine zone zone bi nga xamanteni ni moy a bi parce que lolu diiné sax daf koy wax koku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax na ni am bo fa nekkee bu fa juk fay demit bu fa dem koku yaakaar ni ñun bu sax war nañu mëna amé doxin war am déggin ou te forme de prévention la euh, ba tax ni nañu raxas loxo yi euh, nañu am comportement bi man je pense que warul doon lu bees ci ci doomu aadama yi loolu dafa war a nekk ci vivre quotidien bi quotidiana euh, nit ku nekk boo liggéeyee ba wàcc dugg sa biir kër bala ngay jox kenn loxo war ngaa dugg dem raxasu ji nit ku nekk booy wax ak nit muy sëqat war ngaa mën a ëlbatiku wala nga dànd ko donc loolu ay ay comportement la yoo xamante ni ak ah, xëy na virus bi dinañu permettre ñu <laughs> ñu gën di ko appliquer mais jàpp naa ni euh, avant virus bi lu nu waroon mën di appliquer la parce que c'est très normal donc euh, da ngay gis aussi yenn site internet yi di gis yenn information yi ñu lay jox ay ay ay ay fekk yoo xamante ni di la jox ay information yoo xamante ni daf lay tiital da nga naan ñun fan la jëm man déjà je suis en de penser bi sëñ Njaay di wax man fi ma doon xalaatee maa ngi naan mais suba ci altine bi consulat bi ñaata sénégalais ñoo fa nar a dem maa ngi naan suba ci altine bi ñaata sénégalais ñoom ñoo war a voyager jógee fi Italie war a dem Sénégal est-ce que duñu toog ba ci yàgg ñu nit suñu gouvernement Sénégal jël benn mesure ne ah comme Lombardie noonu la demee bépp vol buy départ Milan wala muy départ Italie duñ ko arrêté donc je suis en d'avoir benn vision boo xamante ni xëy na sax damaa xaw a ëppal waaye euh, mais lu jëm ci consulat bi mais nañ ci wax on en parle wax sénégalais yi que ni leen képp ku amul urgence mais loolu jàpp naa ni ndeyu mbind gi moom ci boppam moom moo waroon a jóg moom moo waroon a bind bind les présidents d' association wax leen ne leen wax leen sénégalais yi ne leen consulat bi bu fi kenn ñëw bu fi kenn ñëw parce que comme euh, euh, tere nañu ay daje consulat bi c'est au cœur de Milan ay nit ñoo fay daje ñaata nit lañu on sait on sait même pas le numéro de personne ñu fay daje te xamuloo kenn ku ci nekk fan la jóge pour mesure de prudence parce que buñ fay ñëw euh, ñu ci bari indiwuñu seeni oto Pullman yi la ñuy jël tram bi la ñuy jël métro bi la ñuy jël te ku ne xam na affluence yi am ci ci ci biir medzi yooyu donc pour protéger leen pour prévenir que ñu am ben contact wala lenen ak lenen ñu tok seen kër à moins que nga am ben urgence bu lay permettre pour que nga mën a ñëw consulat te loolu buy am da ngay mettre aussi à disposition ben numéro de téléphone bu disponible bu disponible je répète dama ciy teg sama loxo numéro bu disponible buy wuyu ci urgence yooyu pour que nit ñi mën di ñëw au moins pour cas d'urgence man sama problème foofu la nekk parce que leneen li ci des man duma médecin tubaab yi wax dëgg yàlla lépp lu ñu mën ci virus bi ñu ngi koy def boo xoolee la gouvernement toogul démb ba léegi am tër tëdduñu weekend médecin yi noppalikuwuñu ñu ngi def ay tourno yoo xamante ni tourno extraordinaire yi yeneen mesure ñu ngi koy jël même ci liggéeykat yi ñu ngi leen di wax naan leen jarul ngay dem ci sa docteur pour def certification médicale pour nekk malatia malatia bi day jël day demal boppam lim si à reconnu ça donc mesure préventive yooyu yëpp gouvernement bi région bi commune yi ñu ngi koy jël ñu it je pense que ñun it en tant que sénégalais man je j'attends à ce que aussi nos autorités prennent des dispositions par rapport à ça parce que tam ñun dañoo nekk sous la loro euh, responsabilité donc fii bu fi dara xewee dara ni këtt ne jonn ñun bu ñuy daw di laaxatu suñu ambassade la ñuy laaxatoo wala ci suñu consulat kon bu lu mel nii bu amee mu bañ a doon benn alarme mais quand même que l'administration continue de fonctionner parce que fu ñu demee ba tëj école yi ba reporter euh, partie di calcio yi reporter bépp événement culturel ou non euh, fu nit di daje je pense que euh, lu mel ni consulat fu nit ñi di daje war nañ ko mën a aussi xaw ko isolé tuuti mais di recevoir

pour dem def fofu def def assemblée parce que quand tu fais euh, une assemblée euh, syndicale tu es devant à 150 personnes 200 personnes mais da nga xam fu ñu da nga xam ku ñu amal contact wala leneen ak leneen donc mesures préventives yoyu c'est des mesures yo xamanteni lu normal la li tubaab bi di def lu normal la euh, vidéo yi nak gaay di def une giro man gis ay vidéo euh buñu buñu indi créer alarme parce que suñu li euh France nan lay def kon France je pense que mo ñu ëpp ay cas mo ëpp Italie ay cas ñi ñu mettre ne dañu positif dañ leen mettre en quarantaine et cetera mais ils sont en train de voir mais est-ce que ñu ngi joxé ñu ngi ñu ngi wax date yi nga xamante ni ñaata nit ñom ñoo ñom ñom lañu relâcher ñu génn dem on n'en parle pas et pourtant date bu am solo la pour wane ni nit ki peut-être euh, symptôme yi mu amone influenza la influenza tra l'altro moom mooy li muy rey eh, coronavirus reyu ko ci dëkk bi fi influenza eh, ci ci ci ci ci deux mille eh, mille dix neuf bi rey na ay deux cent quatre vingt dix sept personnes xaw ma mais on n'en parle pas donc man alarmisme bi moom laay bañ gars yi di ko dund parce que daf ñuy indil yeneen i jafe-jafe ak yeneen i coono surtout ñun sénégalais yi pëcc xoo lay indi ay coono lay indi déjà supermarché yi euh, tubaab yi indi nañ benn alarme boo xamante ni Italie mooy dëkk boo xam li sëñ Ndiaye wax dëgg la ñun ak italien dañoo xaw a nduroo jikko suba bo ne woon euh, benzinayo bi euh, dafa am sopero benzinayo yi ñun ñëppay daw dem def pieno ñëppay daw mel ni sopero boobu du jeex wa ilaa yow boo boo amul benzine as tuut si nga yor benzine doo liggéey ñaata yoon lañ fi wax chauffeur benzine nga dem benzine boo dem mu ne la tutto è esaurito donc alarmisme boobu nañ ci nañ ci tey nañ ci def ndànk rek lii nga xamante ni parce que yu mel nii su amee dal moo koy indi dal boo am na ñoo xamante ni seen wàll la ñoom ñu nga cay liggéey ñu nga ciy yow nag wàll wi nga féete mooy ñaax sa askan ñu éviter yenn façon dajalo yi ñuy dajalo parce que tam euh, dëkk moom boo ci nekkee euh, bu ñu amee benn code de conduite jaaral ci code de conduite boobu ndax bu ñëpp muccee nga jaar noonu mucc yawit waaw kon liñ ciy ñaan rek mooy ñaanal réew mi ñaanal réew mi ndax nag gaal boo ci nekkee ni ko olof di waxee euh, da ngay ñaanal borom gaal gi mucc bu muccee rek gaal gi ñëppay mucc kon dañuy ñaan rek vraiment li nga xamanteni wacc na fi njëkkewul fi Chine la njëkkee jaar ci yeneen dëkk Italie mo doon 4e xawma 5e pays euh, bo xamanteni ni à risque yo euh, actuellement euh, peut être mi ngi nekk ci 3e pays wacc na ba 3e pays parce que euh, gis nañ ni am na ñetti mort am na presque 200 et quelques cas positifs ñu ngi leen téye nangam ak nangam mais yeneen dëkk situation bi ñuy dund nii vraiment alarmisme bi je ne pense pas que am na fa parce que man dégguma ko ba léegi te euh, information moom dafay jàll comme il se doit ñun li ñuy ñaaxee sunu sunu sunu sunu sunu mbokk yi rek mooy nanu dal euh, xale yi nañu leen téye maintenant téye xale yi il y a une discussion au niveau du ministère euh, au niveau de l'IMS pour xool aussi téye xale yi ñuy téye xale yi ci kër gi bu fekkee dafay gàllankoor aussi sunu liggéey euh, nañu xool naka la ñuy mën a amee couverture bi kooku il faut que il faudrait que ñu déggante aussi ak les organisations syndicales ñoom aussi euh, parce que nous it ñu ngi ciy def ay je pense que mardi ils ont la réunion au niveau du ministère pour le ministère pour wax ak moom ak LIMS pour couverture parce que tam nit ki mënul toog rek te duñu ko reconnaître la couverture économique Euh, toog rek neno no virus dafa am fee euh, nit ñaa ngi quarantaine nit ñaa ngi neneen ak neneen euh, stop forçato boobu ñi ci war a waxtaan ñu ngi ciy waxtaan daayira yi nañu tegu ci yoon wi nga xamante ni wax dëgg yàlla bëgg forcé bëgg a def daayira bum ñu ko jaral li sëñ Mourtala waxoon rek nañu tegu ci yoon wi nga xamante ni réew mi moom la ñu sant ñu tegu ci tegu ci yoon waaw donc Eh, xana ma ñu jox sunu sunu sunu gan rek dafa am fu melni dafa am ku duggu de seigne pap wa dafa am mbokk mu nekk ci biir wa dafa melni dafa am mbokk mu nekk ci biir de salaamaaleykum non non gisuma waaleykum salaam rahmatulah ah ko ko sëñ Ablaye la dafa melni nak dama dama melni mel Ablaye di sëñ Ahmed di wax ni mburu amul mom si nga xawa a loolu loolu laa ma dugal ma bëgg ko dànkaafu ni ko pour yi danañ ubbi suba. ah man de jaaxle naa dama bi ma gisee daal suñu amet ni mburu amul moom loolu loolu moom moo ko ci préoccupé. <laughs> Eh, yow kay bu la dara naqari. <laughs> tàmbalee onze billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. allahu xayyun samadun ubaahi subhanahu zu kanafin wabaahi mhm. wa nahnu fi kanafil manihi min kulli sharrin wa zun sanihi mustamsikina bil xiyaasi ahmada xayral anaami muntahat wa murtada mhm. man xaalaha fi zamanil wabaayi amanahu lahu min albalaayi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim mhm. ci barke xasida googu ñoom ci ñaan ci borom teggi balaa bi nga xam ne wàcc na ko ci jaamam amuñu lu dut moom mooy sunu buur moom la ñuy jaamu te duñ ko bokkaale kenn. amiin. yàlla nañ koy fàttali ko fu nu toll bala ñoo fàttali boppam na ko suñu saar yu daan waxee ku mu fàttali boppam rek nga yëg ko. ñu lompañ lan ñu ñàkk jom lan te bari tooñ. waaye mooy sunu buur. moo ñu sàkk ñu amal moo ñuy wërsëgalal wax dëgg mooy sunu lépp. damay faral di wax ni. yomal xiyaam moom jarul suñu borom <laughs> lim naan iqra kitaabaka jaru ko jarul génneel te ab téere ko jàngal li li fi nekk lépp noo ko def ñoo ngi lay mm-hmm. jéggulu ñoo ngi lay tuubal mm-hmm. doomu aadama rek ak bind gi ngi bind ci ban rek moo ko waral waaye wax dëgg yàlla jaawatle wuñ la nattab luñ la xam nañ ne am nga xam nga nañ ni kuy dund nga xam nañ ne kuy gis nga xam nañ ne kuy dégg nga Mm-hmm. kon nag yàlla na ñu dégg yi barke nga xamante ni eh, nattab la am na ci am na ñu ni ku tëdd ko bi am ñu ni Cheikh Mouhamadul Amin Baara moo ko bind lu ci mënti doon rek ñun sant nañ ci ndax Sëriñ Tuubaa Ma mm-hmm. mm. eh, eh, di leen ziare ñëpp wax dëgg di ziare suñu ab Demba di ziare Pape waaye di ziare sama sama xarit boobu nga xam ne moom day sama wëlëri di sama lépp mm. Cheikh Ahmed Ndiaye Maaybu mm. Eh, di rafetlu bu baax waaw waaw maa ngi siyaar bu baax sëñ bi taxawaay bi ndax eh, information bi nga joxe démb dafa am solo lool dafa am solo ndax eh, nii rek la mhm. nit bu waree wax na mhm. wax mhm. waaye rawatina nit koo xam ne bu waxee kenn ku ne dana dana xam ni njariñ rek lay wax ndax am na ñoo xam ne ni ko Pape Makhtar waxee dafa am ñoo ne dañoo maanaam njaaxum rek la ñuy xaar ngir divulgué ñëw euh, wax mu ko aw jàmm maanaam nañ dégg loo ki ren ñu daal di jël daal di nañ def seen vocal nañ def seen audio te naan partagé leen ko sëñ bi nit dafa dafa am loo xam ne li ngay wax ndax war nga ko wax wala fi nga ko war a waxee fi nga ko war a waxee wala bu génne lan lay def ban impact lay def mm-hmm, mm-hmm. lu ci jar ndax euh, li tax tubaab bi rawanteeg noonu ci ci ci juróom pàcc mooy réception lañ ñu mënee Mhm. doomu aadama bi nga xam ne dara dal na ko ñu ñëw ñu defal ko ba nga xam ne daanaka psychologue yëpp wax nañ ni daanaka soixante quinze pour cent de sa day day xaw a atténué wu mhm. te loolu ak ñu mhm. ko ak kanam bu leer ñuy wax ni ndab du ganale ganam kanam mooy ganal loolu la tubaab yi ma ne kon euh, wax dëgg andi ngeen technique boo xam ne ci moment bi ñëpp soxla nañ ko ndax kenn ku ne wax dëgg yàlla nag euh, quoi qu'on dise kenn ku ne jaaxle na kenn ku ne tam euh, xam na ni takk tàkk ba maam fa mu doon tàkke Mhm. dafa mel ni li sëñ bi doon wax dafa dafa ñëw nee bu bul seen fenn fenn ak lakk. Mhm. te demoo wallu ji ngir fay ko yaakaar ne war nga cee mën nga mën nga ca mucc. Mhm. donte da nga koo sori Chine xam na ni sori na. mu euh, demee ba mu romb réew Europe yëpp dikk ba daanu ci Italie nga xool xool xoolal Italie fi mu bokkatu fi mu <laughs> donc loolu lii sëñ Pape Makhtar doon wax nun euh, jullit nag lu mu dal xam ni nattu la luy dalu bi yéefar nag dañuy xam ni mbugal la. kon euh, dafa bokk li nga xam ni axiru zaman andi woon na ko ku jàng euh, téerib axiru zaman boobu gis ni wax nañ waxoon nañ ci ni euh, maanaam feebar yi yu ci bari dana ñëw te du am lu ko faj ñu bari danañ ci faatu mm-hmm. bari na ay catastrophe naturelle yoo xam ne kenn du ko causé nga xam ni loolu dafa bokk ci li ñuy wax junóo di sama waati wal arti mooy soldat yi suñu borom mi nga xam ni ñi ngi ci diggante asamaan ak suuf mooy mooy ngelaw mooy feebar mooy tàkk-tàkk mooy montagne muy wàcc mooy ay frana mooy ay tremblement de terre yooyu ko ko koy def ko kenn rek moo ko mën suñu borom dong moo ko mën kenn du ko kenn du ko kenn du ko accuser kenn yooyu nag ci mujjub jamono day day day bari lool day bari te loolu li ko waral dara weesu ko lu dul may gu ni mooy suñu borom ak wàccu yoon ak def li ñuy wax contre nature ndax bari na loo xamante ni tey jii mi ngi ci àdduna bi ben ka ci la ci suñu borom daan dugal aduna ben ka legi xol ñaata ño fi nek ci biir aduna bi kon lu lepp war nañ cee jàngat euh, malheureusement majeure partie société bi li ëpp ci nit ñi du du julit ñi te julit ña da nga ci génne tam nafiq ñu fété fele ñoo ñar ñoo ci dëggal di def li suñu borom bëgg suñu borom di leen rusandi waaye bu dul doon ñooñu tierce personne yooyu nga xam ne ñu ci bari tey ji ñu ngi leen di xeex muy diine l'islam ji wacc ba ci suñu daayira yi buñ xamoon li ko seigne abdou ak doon waxee amul communauté européenne buñ xamoon la ngeen fay def ci ay ak alquran dañ leen di dañ leen di berel ay chèque di leen ko jox waaye malheureusement xamuñu ko tek ci dañuy xeex loolu nag suñ borom léeg-léeg mu rëccil yu mel nii ko andi ngir fàttali boppam rek la waaye sax du du du du am meram wala yu ni mel suñ borom daanaka jombante na di merante doomu aadama ndax lu lom fañ la ci ci wetam moo ko Eh, li ñuy wax li ñuy wax nii xam eh, nga sëñ bi li mu naan eh, ku ma suñ borom nga sóoru ku sóoru suñ borom xam nga da ngay neex a daan ndax ku moom nelaw suñ borom a ko moom dalay roof nelaw rek nga nelaw lu ko neex mu daane la ko sa jële day ñaaw kon ñaan rek lañ man te te it tam ñi ñu dëkkal ndax réew mi réew mu mag la quarantaine yi ñuy wax ak isolement yi ñuy wax ak beru biñ bëgg ñu def ko nan leen ci topp ndax suñu jàmm rek la yaakaar na moo ci juddoo moo ci juddoo te bañ a xëccante ak ñoom ndax man nañ cee profité def loo xamante ni loi bi da leen koy daal di permettre te bu boobaa ñoo ciy ñàkk suñu wax na ko daayira yi dëgg la jàngum alxuraan njàng xasida dëgg la waaye ñun bi nga xamante ni gàllankoor daan na suñu suñu kaw ñun virtuellement la ñuy jàng kaamil di jàng xasida yi taxawut utiliser whatsapp bi di ko communiquer eh, numéro 1 bi kenn mat na numéro 2 kenn mat na xatmu bi bay Allah ñëw daal di koy jàng ñu soññee daal di ñaan inna ardi wa waasi'atan lolu lolu moom suñu borom mom moom den di yëpp kon buñ ko sakal ni benn barab rek lañ ko wara defé kon nañ tënku ci ci loi rew mi ni ko sëñ Mourtada waxee woon yàlla na borom yokki leeram baña a xëccoog ñoom bañ a diisoog ñoom ndax eh, li ci juggé ci ñun manam suñu suñu suñu suñu ngànca doon buñ ne bu leen daje bu leen buñ leen may le causes yu ñuy waxee wala les causes yoo xamante ni dañuy blâmer banag voilà ñu ngi nii ñoom bëgguñoo intégré wu ñoom bëgguñoo tënku ci loi yu nang c'est-à-dire dañuy daal di ay ay alibi yoo xamante ni dañ ciy jaar bu ko defee population bi aussi dañ leen ciy jàppale naan ah ñun kat li daw lépp ñii nga xamante ni ñu ngi leen yaatal ñoo ko fi indi kon loolu aussi nañ nañ ci bàyyi xel bu baax a baax daal maa ngi maa ngi jégg baax di leen di leen sant ci émission ndax am na solo euh, ni Pape Makhtar doon wax ci consulat bi am na ko bind ci biir kiiw Facebook bi mi ngi laaj ndax consulat bi dana ubbi suba ñu xam naa xëy na dafa am yitte xam nga loolu dèjà kenn amul boobu information léegi association yi wala yenn daayira yi wala consulat bi amoon benn sit wala benn benn page Facebook wala benn groupe WhatsApp man fa waaw xam nga man man man man euh, as consulat bi sax. Euh, mm. mën naa ni euh, pàcc bu tuuti la ci ci ci autorités yi war a répondre. Mm. mais tey jii ñun dañu am dañu am njiitu réew. mu nommé ministre boo xam ni dafa yore Sénégalais yi ñu am ci biir ministère boobu koo xam ni moo ñu représenté. ñu gis maanaam fii valeur doomu aadama dëkk bi ñu nekk. moo tax ma ni doonte war nañoo tiit waaye war nañoo sant yàlla ndax fii ñu nekk gis nañu valeur doomu aadama gouvernement bi démb tey ba léegi nelawuñu euh, soo ko laajee sëñ Ahmed ñaata conférence sa Stampa démb ci guddi ba lé démb tey la gouvernement région Lombardie ak protection civile di def actuellement dañuy def monitoring heure par heure conférence mm. de presse boo xam ni même personne bi mokoy def kilifa gi mu leer la ni kii bu dee day tëdd day dafay dafay tek nopam fenn rek mais nelawul ndax responsabilité yooyu ñu ko jox ñun tey jii ma ni ngi koy wax dimanche ba le passé communauté sénégalaise bi nek Italie mën naa ni mooy vache laitière Sénégal ndax tey jii fukk yu ñu lu ñuy dugal fukk ci Sénégal ñeent yi fii lay jóge yeneen juróom benn yi doog a jóge ci àdduna bi est-ce que jaaduwul tey jii xew-xew yi bu amee au lieu muy jaar ci organ de presse yi ñu am benn comité de crise boo xam ni suñu ay réew dañuy ñëw taxaw dégganteeg représentant association yi dégganteeg autorité yi mais man ba léegi defe naa ni tey jii pap paptal kasto la bokk dégg naa Seydina sànq ma ngay wax Seydina ma nga Brescia maa ngi dégg Baye Diouf ma nekk Milan ma ngay wax ku nekk yaa ngi wax mais ñun suñuy autorité dafa mel ni maanaam ñun ñun ñun ñun vitesse bi ñuy daw ñoom dawuñu ko euh, ñu am consulat général mu nekk Milan daanaka euh, darajay ambassadeur la yore mu waroon a mën taxaw tey jii déggante protection civile xam ñaata sénégalais ñoo nekk foofu mu war ko defaat feedback Sénégal mais loolu la loolu la euh, autorité di jariñ ci réew ndax ñun suñu réew soxlañu soxlawuñu xaalis ci ñoom ñun ñoo leen di dimbali waaye dañuy soxla jamono joo xam ni taxaw ba ca war accompagner tey ji ña nekk euh, booru dëkk yooyu ñuy wax mais xamuñu kan moo fa nekk ay daayira ñooy jóg di leen taxaw est-ce que jaaduwul ñu jóg def benn cri de cœur yéen ñi nga xam ni yéen a féete foofu pour ñu wax ci loolu daal bëgg naa ci dégg sëñ sëñ Ahmed am ban ban ban xalaat ngeen ci am Eh, eh, ak ak ban ban gis-gis dal ngeen ci am fi mu ne nii ci tek bi karal bi am sunu rew ndax suba bo demee ci rew de presse yëpp loolu lañuy wax mu melni tay ji mën na sax indi psycho Sénégal bu italien wàccee nit ñi di fat seeni bakkan di ñu moytu su sunu rew taxaway bi mu wara am gëm na <laughs> ni batay tey na suñu amel wa bismillah suñ pap ni ma ngi jaajeufal sama sama jëwriñ sama mbokum talib sama soppe eh, sëñ Abdoulaye Diop daar di wax àddina yëpp ni nit ku baax a ngi nii ku lu baax yéene ko ñëpp yal na ko suñu borom dimbale taxaw ko amiin ñu ko bi xam naa li may wax yaa ma gën a xam waaw ndax saa su ne yéen a ngi jokkoo nit ki nag xam nga nit ki baax mooy ki xam dara te di ko laabiré mm-hmm. eh, bokk na ci yenn saa yi may yi jàllale ci eh, ci réseau yi ci moom mii ci moom la koy tibbee mm-hmm. da koy def donc dans l'anonymat xam nga xam nga xam nga ki jàng ta xam. Mhm. li wax naan li ñu wax naan euh, bërigo bu fees daal du euh, bëri bërigo bu fees du du du saa yëngatu. Mhm. waaye nag boo mel ni man moom maanaam feesoo amoo dara def suñu tool jëlee dégg moom. ma maasal nun gi boo melee ni ñun. dañu ci man. <laughs> léegi sëñ Pape. xam naa man moom ci fi ngeen di waxee nii. man moom wax dëgg yàlla. damay bañ damay bañ xam nga ma weex dunq <laughs> ndax man je suis contre la politique du gouvernement sénégalais envers les immigrés surtout ñun ñiy moodu moodu yi gis nga lu mënti lu mënti lu mënti am quand euh, bi euh, bi expression moodu moodu xewee Sénégal du woon waa France de sëñ bi du waa France du waa États-Unis waa waa Italie la <laughs> Euh, dafa am loo xam kenn maanaam borom defal Serigne Touba. Mhm. na ko dindi. Mhm. Serigne Modou Bousso Dieng moo toog fii daal ni yéen waa Milan maay seen maay maay seen baay. Mhm. man dama naan kon waa Italie lay waxal te Serigne Modou Bousso Dieng ñëpp xam nañ ko ni mu dimbalee waa Italie. coow lii ñu am ak këyit yi nekk ci kër Modou Modou yëpp moom moo ñu ko yóbbee. Mm-hmm. ndax gars yi dañ ñëw ni ko sëñ bi ñaan ñu am kayit buñ ko buñ bu mm-hmm. moo tax kër Modou boo dugg lañ ko fekk ci kayit kenn xam lu muy doon waaw expression ñaana ñu am kayit moo doon ñaana ñu am séjour mm-hmm. mais bu nga waxoon ni ko sëñ bi ñaana ñu am ñu am ay milliards wóor na suñu kon man euh, vraiment les autorités les autorités les autorités euh, consulaires wala mu tuddi eh, wala mu tudd wala ambassade ba amal ñu benn njëriñ man nag mënumaa wax ndax ci fi nekk ñëpp wante sa mbokk mënu fee ne ma soo ko xalab su mbokk jàmm ñëw ngay xalab kooku dëgg la wax dëgg yàlla ñun ñëpp à l'unanimité xam nañu ni ñaar ñi fi jiitu woon kii fi nekk tey bañ fi nekkee jafe-jafe bi am hmm. de Sénégalais eu leur carte de séjour grâce à Abdoulhad Soura qui avait des cartes consulaires antidatées pour les Sénégalais. Mm-hmm. Sénégalais yu bëri fekk naa consulat boo ñëwee police indi la mu ne la bul dégg wolof boo dégg loolu mun la kii ñi ko bàyyi Sénégal di leen dundal bu ñu caaxaane bañ dellu leen Sénégal àq boobu xamul nu ñu koy waxee. Mm-hmm. ñeneen ak ñeneen mais ñii fi nekk tey sëñ bi. ils ont signé des papiers yoo xam ne pour rapatrier ça des Sénégalais. ñii fi nekk signé nañu ay kayit ay Sénégal yu ñu jàpp indi leen consulat ba ñu leen defal leen defal leen sauf conduite ñu defal ay sauf conduite woon ñii ñii fi nekk daaw ñu signé ay sauf conduite sëñ bi donc montre ñii fi nekk nii ay muur nag loolu moo tax côté boobu bugguma fa di dugg trop parce que sinon te man moom man daal li ma gëm mooy lii nga xam ne moom lañ jàpp boobu boobaak léegi gouvernement jàppale wuñu ci consulat jàppale wuñu ci ambassade jàppale wuñu ci xam nga kañ moon jàppale sénégalais ci sen wal organisation interne moy les associations et ak les daayira lu fi am ñom ñoko fi def li ngeen wax ni c'est tout à fait normal man li woor bu woor moy bo pourtant ñom wax nañu ko ils nous ont dit que ñom wa waa consulat wax nañu ni les autres consuls dañ leen dañ leen di ñé dañ leen di wax ci leen dañ leen ñé parce que comment comment vos compatriotes font pour s'organiser de telle de telle sorte ñom ñoom ils se leur blason parce que day mel ne ñoo ko dox te fekk ñoom dox mais les autres ambassades donc j'étais les de waaw. allo sëñ Ahmed dafa am mbokk mu nekk ci biir te xam naa mel na ni liñam moo ñuy xaw a perturbé. waaw waaw parce que nañ ko dalal. Euh, bu ñu paree ñu delluwaat salaamaaleykum mbokk mi. bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullah. maaleykum salaam kooku. Njaga Kebe Touba Parabiago. Touba. Parabiago. Ah, Milano. ñu ngi euh, ñu ngi jéggalu baax euh, foofan la. waaw Milan Parabiago. ah damaa damaa déggul nag bu baax ñu ngi ziar bu baax mbokk mi. na nahnu kazaalika mbaa yéen a ngi ci jàmm ñu ngi leen di ziar bu baax. moom de boo waxee waxi xéewal kebe kebe jóobe nii dañuy dugg di xëccoo. waaw moo moo taxoon sax xawatun na bëgg a daw. dara manqué gul gul sëñ bi. <laughs> waaw waaw alhamdulilah. le euh, fi may fi may lifine rek maa ngi nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu euh, euh, Serigne Tall di nuyu Ahmed moomu di nuyu mbokk yëpp di leen ziar di leen ñaanal di sàkku ci ñoom itam ñaan di di wax ne rek nañ nañ delluwaat ci yàlla di ñaan di dellu ci moom mm-hmm, mm-hmm. leneen lu ñu def lu dul loolu dañuy rëcc mm-hmm. virus bi moo feeñ yeneen nangami milliards yi virus a ngi ci jaww ji suñ borom téyel ko boppam li sang boobu wax sànq ci Cheikh Ahmad Bamba ci fi mu naan ku bëri man yaa ngi mel ne ku bëri suñu borom muy birazuman baari ni birazuman boobu mm-hmm. ci tënk ak beneen bi mu tam ne way naa soo ko yaa ahad li xaflatin lam yusrikuka bi ka ahad mm-hmm. foofu yooyu de yu am solo euh, ndax suñ tubaab daf ni ko yow sa sa doomu aadama yi lu la mooy mooy duñ la bokkaale ndax xam nañ ne yow rek la mm-hmm. Euh, li sëñ euh, taal nag ni musiba la euh, du du du du musibam kese sax day mbugal mbugal la mhm. beneen bi si des ci tënk rek damay bañ ñeneen ñi ci gannaaw bëgg a mën a dugg ci wàllu xàq nit ak kamu dëkkal mhm. wala laqad karam na bani aadama mooy tax nañ koy bàyyi xel bu baax leneen ñetti kaamil yooyu sëñ Ahmed wax ci sëñ Mursalaatin alquran ci boppam mooy lépp xam sëñ tubaa daf ko da ko bañ bani karimun min karimin mukarramin waxaat ko feneen ne ko azizun min azizin muazzamin xeetu tagg jógewaata ne ko yaa kitaabal karim anta xalili wa habibi mais lu tax lu tax yow nga ci wax wax ju rëy yi ëpp la kattan ëpp la dimension di ci doon ci dund yow nga ñëw bokk fi ni ñukk di di nekk ci yeneen lu lu dal jun la te beneen beneen xeetu mbugal bi nag du ñëw comme ni ko sang boobu waxee nam daan lore yeneen xeer yi dootuñu ko lore ndax yonente bi ne fi nun wax na ko ci sóor taba bu ngeen demee danguñ ko ca fekk incha allah xam naa oustaz yooyu dañ ko mën a gën a mën a faram fàcce mais li nga xam ne daal mooy mooy li am na ñun ñëpp ñu jóg tuub ñaan kenn ku ne bu fekkee da ngaa da ngaa gëjoog sa morom ngeen am diggante am xaar ma yàlla ngeen fexe ba mu dañ am na loo xam ne pour pour yuri julit la waaye am na loo xam ne pour julit yi la de waaw daa am loo xam ne pour ñi dul jullit la la ki nga xam ne kenn du ko xaaree fële dara alaxira mhm. kenn du yu bari dañ ko koy mbaa yàlla fii dañ koy bàyyi ba mu ñëw fële mhm. ki nga xam ne nag kenn du ko bugal fële li lépp dañ ko koy wàccee fii mhm. comme comme que mbugal day dem ba ci sukaraat comme ni ko sëñ Sambay di waxe yooyu yëpp da ciy am pour ma bañ a guddal eh, di xaabaabal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen eh, wax ni maa ngi leen di bàyyi xel fu ma toll jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Kébé kooku doon suñu mbokk eh, sëñ Oustaz Kébé vraiment participation moom it am na solo lool sëñ sëñ Ahmed ma ma ma joxaat la kàddu gi kon nga yeggali ñu ngi toll woon ci waxtaanu diggante jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu am ñu nag suñu autorité parce que yii itam du du wàllu contre bi daal mais dafay jaadu léeg-léeg eh, nit ki bu tolloo ci diggante ndax fi mu ne nii ñun société bii ñu nekk bu ñuy taxaw du ñu def distinction waaye jamono yi ñu ngi dund moment bu difficile euh, moment bu difficile ci kaw euh, ñi fi nekkoon nga xam ni ñoom seen digganteeg immigré yi dafa doy waar lool tey jii rek maa ngi dégg gis ay post yu yéeme ci seen jëwriñ ak yeneen député dégg naa sax ñuy wax ni actuellement dañu war a jël ay ay nave bloqué euh, ndox mi destination africaine bi dañ ko war

Euh, euh, benn communiqué wax ni ñi ngi jóg kat yebal fi benn ndaw mu ñëw taxaw ñu xam ni kat ñun suñuy autorité am nañ lu ñu leen jaral waaye boo xoolee daanaka euh, toujours rek médecin après la la mort surtout nag xew-xew yu mel nii dafay mel ni da ngay jaaxle ndax gis nañ ko Chine ba mu amee donte merewuma sax problème wu du problème wu maanaam président li mu wax mais ni mu ko waxee moo xaw a moo xaw moo xaw a tiitlu kon day mel ni sénégalais bu nek bitim rew danaka valeur c'est zéro waye nak bo xolé ñun lañuy daj sunum rew ak lañ fay def danaka mën naa ni ñoo yor réew mi suñu amet ma joxat la kàddu gi waaw sëñ pap waaw sant sëñ Tuubaa baax waaw mo dal pap moy li ma la wax legui ni rek man day man day man day sama walu bopp man man gëm naa ni les vrais ambassadeurs les vrais représentants du Sénégal authentique mooy semence gi yow mi sëñ bi sant nekk wet wet wet wet say Kolemana euh, Ablaye Diop daal xasanaat euh, Baye Diouf euh, ak ñeneen ak ñeneen. parce que wax dëgg yàlla nag li ñi nga xam ni ñoom lañ fi indil o a des députés. et vraiment man ci li ma xam. je ne peux pas dire donc bravo mu tuddati aux députés de la diaspora mënu wax ñëpp. xëy na nag cerné wu ma leen ñëpp à cent pour cent. mais am na ci koo xam ni wax dëgg yàlla toujours. nous avons dit au devant de la scène défend donc l'intérêt des émigrés et pourtant il a été élu par les émigrés mais quant aux autorités qui sont là nous xam dañ forcer nous laaju ñu kan nous bëgg consul euh, consul man d'accord nous comprend Modou Modou avons vice consul d'accord nous vice consul parce que dafa dëkk ci biir dëkk bi xam réalité dëkk bi mais l'ambassadeur et le consul doivent sortir des écoles de la diplomatie du Sénégal reconnues par les institutions et non un politicien et les mm-hmm. preuves sont là mm-hmm. jamono ji nga xam ne Abdoulaye Sora moo fi nekkoon wala mm-hmm. jamono ji nga xam ne sëñ Kouyaté moo fi nekkoon mais on avait pas ces problèmes là dëgg la sëñ Demba ñaata yoon lañ taxaw bi euh, sëriñ Moutada man sëriñ Moutada lay indi rek Serigne Mourtada Mbacke yàlla na ko yàlla fayal jamono ji nga xam ne mhm. dem na ba mënatul ba mënatul dox. Mhm. Abdoulaye Soura bu ñëwee da koy teg chaise roulante. Mhm. wàcc ko wàcc ko passerelle bi. génne ko aéroport du jàll poste de contrôle. passeport bi Abdoulaye Soura mooy dem gars yi tamponné ko duñ sax gis sëñ parce que euh, maanaam nit ku nit mel noonu ak âge yooyu mu am xam nga ni sëñ bi kii ñëwul ngi toog ci réew mi. passeport tous les pages sont tamponnés par tous les pays du monde xam nga ni kii soxlu fi dara. kon nag kenn war na war a mën a dem accompagner ko. dëgg la bi ak yeneen ak mais bu ñu demee ba tey actuellement ñi nga xam ne ñoom ñooy les consuls actuellement ils n'ont pas droit d'accès au niveau de l'aéroport sëñ bi mais loolu loolu sëñ bi ça mhm. man man je parle en connaissance de cause moo tax man mënu maa wax dem naa aéroport woo kilifa gi ni que dañu war a dem jëli benn ab kilifa ñu taxaw biir aéroport maag moom ñoo taxaw ci hall bi ma ne ko ah waaw jëmm ji doo yegg ci mënu ma noo aw ma amatuma kat ngir mun dugg ci biir lan moo ko waral c'est parce que ñi fi ils n'ont pas assez de poids ou assez de force pour dire aux autorités policières des frontières non moi je suis un diplomate je dois accéder à ça mm-hmm. Les nag su boobaa yow boo un Pape Demba ma xam ne xamul lan la diplomatie xamul lan le droit am xamul lan mooy devoir am buñ ko bloqué danaan ok mais man mm-hmm. boo jëlee léegi Pape Demba vice consul d'accord, parce que Pape Demba en tant que vice consul il connaît les réalités du pays mm-hmm. donc il peut assister le consul qui arrive du Sénégal qui est un diplomate assis hmm. ci ko sa ci yenn yi man loolu laa hmm. gëm waaye nag doo jël nag sëñ bi un pape dem ba Modou moodu nga def ko un consul jël eh, ablaye diop daar xasaar def ko vice consul alors que ñoom xamuñu quels sont les lois les formes et les critères cest de la diplomatie li ginnaaw nag ñun nag ñun diplomatie dañ koy jàng dañ koy jàng ginnaaw hmm. ñun nag ginnaaw ñun ñi Modou Modou italie yii ñoo mën a yore le sénégal kooku moom kuñ ko waxu tam xam nañ ko dem nañ ko sax gis nga barkeb italie dem na ba dañ naan bu njëkk ba dañuy wax naan boo bëggee dol ana dol waa Italie tellement barke bi nekk ci liggéeyu moodu moodu Italie yi mhm. boo demee Touba Gueye amoon na ay dol xasida yi yoo xam ñoom il préfère ñi jël dol yi nga xam ne xasida Sëñ Tuubaa yi ñuy liggéey fii Italie yóbbu ko moo leen gënoon xasida ya ñuy foofu mhm. loolu am na lu ko maye c'est parce que les moodu moodu lii sëñ bi dañuy liggéey seen ñax lekk ñu àll kenn di dundal seen réew di contribuer au développement du Sénégal mhm. mais malheureusement l'état waxal waxal ci kaw de waxal ci kaw. waaw <laughs> mais malheureusement jëwriñ l'état actuel dimbaliwul Sénégalais yi dimbaliwul les mots de man du ma wax les mots de mots de France du ma wax parce que man dund foofu mais man damay wax réew mi nga xam ne moom lañ dund. les autorités qui sont là ils nous ont apporté aucun soutien li nga wax ni mooy dëgg mais tey bu feebar mel ni amee mais sëñ bi même bu fekkee ni le consul wala l'ambassade n'ont pas les moyens mais au moins tu fais une déclaration. au moins nga nga dala xelu sénégalais yi au moins mais nga dem région Lombardia da nga dem région Lombardia nga assister donc au au au au moins yow tu le fais comprendre ni je suis immigré mais je suis avec mais su boobaa ñoom au moins ñoom dinañu ah communauté sénégalaise kat apporté na amet waaw euh, non non xaaral ah, ah, Ablaye xam na mu ñu tuuti rek gis nga Pape Demba daayira Touba Montagne mhm. bi Ablaye Diop daara xasanaan ne xamul tax xamul tax ma fonk leen mhm. ce sont des Sénégalais qui sont dans une zone boo xam extrême droite moo fa nekk. Mhm. xam nga qu'est-ce qu'ils ont fait dañoo créé seen daay de pare dem bokk ci association euh, mu tudd di euh, mu tudd association di bom volontariato yi nga xam ñoo nekk au niveau de Monza. pour mhm. seeni doom ñuy ñuy ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy dem bu bu bu primavera jotee ñuy racolier feuilles yi di defar parc di defar tout ça. Mhm. loolu mooy apport nit ki boo dëkkee ci biir dëkk da ngay bokk ci dëkk ba. Mhm. kon yo watou ba mounza moumi nyo def ligye boumel ni nek dan joun zon mou hame se l'ekstrem durak mi dem ba am un pre bon rapor avek la komune, avek les otorite jè boku apresye kerok beso khasi deyi si tako bi nyo ak euh, ah. euh, banyera vi nga hamni moum le otorite di tak mou fek nyo sargal komune te sargal C'est une grande victoire pour la quand, quand, les Sénégalais, quand les Sénégalais de Monza s'organisent de telle sorte, nous avons am, am l'olendal. Nous avons l'autorité communale, am sa mm. kersa parce que, mom li, manam, ni l'inko wanon. Mm-hmm. Ba nous tenons len fi, malgré, malgré euh, les oppressions que le, entre guillemets, parce que, c'est ndeko be extrême droit, mais c'est quand am le ko kooku noonu du nangu si nekkoon bii di am de bon rapport avec les immigrés. waaw. mais bu fekkee ni kii sénégalais yi mu nekk yi nekk ci biir commune ñoo ko ñoo ko wan di ba tax na saay mu fonk leen nii mais yow mi autorité sénégalais yi mais yow kenn wala foon jiitu. ca dëgg-dëgg. ah mais ba sànq ba léegi gars yi ñoo def un pas vers lui. Mm-hmm. vers elle bokk. waaw yow de daf nga ci lu bari sëñ bi te man seede laa ci. mel na ni ah. am na beneen mbokk mu nekk ci biir. salaamaaleykum directeur. maa ngi jégalu <laughs> sëñ Ablaye maa ngi jégalu. <laughs> tarkala tarkala waaw directeur salaamaaleykum maaleykum salaam cheikh bi ñu ngi leen di ziar kooku sëñ Aliou Ndiaye la 24 Africa 7 bisimilah sëñ bi ñoo ngi tuub di jéggalu ga ci dégg gi di ko tuub bu waaw waaye xam nañ ni liggéey bi la rek ak soriwaay bi waaw di baalu rek xam ne ni wax rek yoon wi yoon wi yoon wi gudd na ku nekk fa nga bay rek yaa ngi ciy jàpp lu mu néew dëgg la waaye ñu ngi leen di bàyyi xel bés bu nekk wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf <coughs> ñu leen di bàyyi xel live yeeg waxtaan yeeg Facebook bi yëpp ñu ngi leen ci bàyyi xel di leen gërëm di leen yokk soññ rek comme ni ñu soññee suñu bopp ndax yoon bi moom li ko wax sànq maam Balla si moo fi daan théoriser ne man dama porter le ton le nom de ambassadeur waaye l' ambassadeur mooy ki nga xam ne mooy taxawul Sénégal ki koy taxawu nag mën na ko taxaw ci fànn yu nekk mais ñun suñu cat moo di maanaam ba politique bi ëppee doole ci biir euh, mbir mi ci la mbir mi yàqu te ah, bi politique doole ci mbir mi ci la mbir mi te léegi nag mbir mi dafa rax politique ba mu ëpp te gis nga sunu sunu wax mooy dañuy dañuy jub dara bañ koo wax di xaar ba mu wees ñu doog ko commencé waat. li ñu dal fii te dal fi APR parce que mbir mi da koy ñemee wax da am fitu wax ko wala nga ba ko gis nga li ñu dal lépp APR ak Macky ñu ko teg du keneen nag parce que moom mooy nome jël nommé ci waa parti ñu ko doon xeexal démb gis nga bu ñu yéexee loolu moo ñuy dalaat suba ndax actuellement bu ñuy xool ci statistique statistique gagne individuellement Pastef a fi gagné bis bu Sonko nekkoon président ki jël ci waa Pastef lay jël nommé loolu mooy fonctionnement fonctionnement wu politique liñ ci war a wax nag mooy wax tey ne euh, un peu d' accorduma si nit ki ne euh, ambassadeur euh, kii consul général dafa war a génni wala ambassadeur dafa war a génnee ci diplomatie baax na ci mais actuellement monde bi li muy dox dafa am terme boo xam ne bii Sénégal théorisé nañ ko bokk na ci ñi ko théorisé ñu koy dox mooy ce qu'on appelle la diplomatie économique actuellement le diplomate formé à l'école ENAM mo xam école de magistrature ki jógee si nga xam ne dafa def euh, administration daanaka fonction d'ambassadeur am yomb na ndax ambassadeurs sont dotés de conseil militaire sont dotés de conseil euh, ministre conseil sont dotés de premier secrétaire yo xamni c'est des administrateurs yo xamni presque les luy dox ci walu diplomatie walu sécurité walu relation walu coopération jang nañ ko ñing koy dox mu na économie Mhm. économie ku la gën a miin am réew moo la gën a xam la fa ne. Mhm. dafa nekk poste yoo xam ne yi tey pour Sénégal ñàkkul woon ci Italie ñu bokk ci APR ak ñu ñàkk bokk ci APR ñoo xam ne bu leen nommé woon wala ñu jox leen génn leen ci seen carcasse politique mais jël ci seen i bëgg euh, bëgg réew mi ak seen intégration ci réew mi danañ dox tey lu ëpp li fi ñii di dox. Mhm. je prends un cas patent la Côte d'Ivoire son ambassadeur et son bureau économique sont gérés par des anciens Ivoiriens immigrés étudiants ici. Mhm. L'un est devenu ambassadeur, l'un gère le bureau économique. Mhm. ay immigré lañ yu ni fi ben am fi nationalité. Mhm. jàngee ci université italienne yi. ñun kenn gënu leen xam Italie. jógee nañ fi xam diplomatie xam relation xam entrepreneuriat. événement bi gën dox tay ci walu coopération ñi koy doxal ci walu Italie. ñi ko jiite ji ay africain kenn ki béninois la ki ci dess camerounais la ki ci dess ivoirien la Ñom ñëpp fi lañu ñu mooy IAB IAB mooy la par année lañ koy doxal dajale Afrique bi yëpp ak coopération ke ci des kenn ki mu ngi liggéey ci biir coopération ci Italie. Mm-hmm. dem nañ ba gis fi poste bi gën a cons bi gën a nome ci gën a ëpp doole ci li ñuy nome ci wàllu euh, ci wàllu li li ñuy jël ci wàllu nomination ci Italie poste bi fi gën a kowee ci africain Sénégal egg na fa. Mm-hmm. mooy ministre conseil du ministre. dugg ci cabinet ministre. ab noir bu ko gëna def ci njëkkee def ci italie mhm. ali baba fay la mhm. te ali baba fay buy dem ambassadeur sax buy dem ambassadeur sax bo muy sénégal yi waxam bari bariwul dëgg la bo leen ko limaloon sax ñu lu man lu mu fi def luñ fi ningu koku italien la mhm. am na ko ko wax euh, euh souran yalla daf daf ko daf ko mayon lu lo xam li du yomb ñëpp am ko moy dafa submi won bu diplomatie bi sumu mbubbi mbubu mbubu serigne bi ngir yëpp jël Sénégal jiital ci kanamam. Mm-hmm. loolu nit ku woyef loolu yàllaa koy may nit mu def ko. Mm-hmm. ñii fi nekk nag dañoo mëtulu ci bagaasu intellectuel bu yeboo ñu wax ko nekk noon wala ñu wax ko lenn mais Sénégal la ñor mais jël mbubbu parti bi ak jege gi ñu jege ki moom parti bi def ko seen kanam parce que loolooy tax ñu mat nit. Mm-hmm. buñ ko defut duñ leen mën a loolu nag foofu dafa dem ba indi gàllankoor ndax bu fekkee ne Aliou Ndiaye dafay ñëw nga xool ko rek kii diaspora 24 la bokk wala Pastef donc du ma du fi xaj ci biir consulat bi te ëppale woo ko ci consulat bi da ngay créer en mm-hmm. su fekkee ne président association bi nekk Parma bi nekk Bologna bi nekk Treviso bi nekk Milan wala Caserta da ngaa xool ne président association bi moom ci parti politique bële la bokk donc association boobu keneen ki bokk ci ki nekk ci président association te bokk affaire moom moo ëpp valeur dootoo dem da jaxase. Mm-hmm. jaxase yooyu mooy lu ñu sonal. te nit ki nga xam ne bañ demee bañ fal la ne la yaa jiite nit ñi rek da nga war a summeekuwaat mbubb moom yépp sol mbubbu sénégal mhm, mhm. jàpp ne kii ñëw ci man même bu ma dee wax lu dul dëgg même bu ma dee xatal même bu ma dee indil salfaan safaan ba di ma wax dafay jàpp ne droit la parce que li ngay wax euh, jawriñ li ñuy wax nii waxuñ ko parce que dañoo bañ nit ki waxuñ ko parce que dañoo bëgg nit ki mhm. ab réew dafa mel ni association mbootaay réew du dara lu du mbootaay tur réew ñun ñëpp bu ñu àndee dem ci benn association bokk association ba nekk fa weer bu jot may cotiser réunion jot may ñëw suñu manqué ñu jël ci lañ doon cotiser ñun joxal kenn ñu jël kenn nag ne ko li ñuy cotiser yow lañ ko dénk ñu gis ni kooku ñu ko dénk ñun ñu ngi xëy di daani suñu doolee di liggéey suñu njaboot moom mu xëy di ñëw si ñun bu weer dee ci lañ ko dénk mu comp ca di ci dëkk di ci fay courant di ci fay ndox di ci fay leneen ba keneen koo xam ne kii mu ngi ciy cotiser te yëgu ko bu xëyee ñëw fa di wut si lu muy laaj xam-xam nga ne ko génnal danaan la bala ma génn nga génn loolu mooy ab réew réew mi mooy dañoo dajale suñu alal ñun ñëpp Sénégal jox ko Macky Sall Macky Sall ne ah man nag damaa wóolu euh, Aliou Ndiaye damaa wóolu Pape Demba Aliou Ndiaye Pape Demba dem leen fu ma munta egg fu suma baat mun ta ne fu ma ta teg sama loxo ngeen taxawal ma fa waa legi man Pape Tall su ma ñëwee ne Demba dama bëgg kay mëna ne ma non du la ko jox parce que ci Idrissa nga bok damay jalgati aspect politique bobu duñu mësa dimbalé tank tant fi bi ci dess moy diaspora gis nga diaspora qu'on le veuille ou pas tank daayira yi tank euh, euh euh sénégalais lambda yi jóguñu ñu japp né ñun diaspora dañoo wara tek, ci suñu biir ku ñu xam manam waxuma walu politique manam kuy diriger te am xam-xam duñ fa dem parti politique boo fi teg mu teg fi boppam du sotti Babacar Ba bi nekkoon alternative citoyen te tey nekk conseil supérieur des sénégalais de l'extérieur euh, nu mu sax tudd euh, ministère des sénégalais de l'extérieur Paris la daan jógee BOA la nekkoon ñëw Italie doon samp ndëndëp ànd ak ay Tall Sall lu mu yokkut Macky Sall amul ànd ak Aïssata Tall Sall bi Aïssata Tall Sall takkee ay bagaasam ànd ak moom dugg ci tey mu ngi nekk conseil supérieur de l'extérieur déggatoo ko mu wax déglu naa ko sa plateau ba tàyyi kay mu wax lu ne lu la xut la la wax diaspora vingt bu daan ñew diaspora vingt quatre man maa dalal lol kay setan na ko ba tàyyi buy wax legi man damay damay bu samay nopp <laughs> c'est-à-dire que finalement da ngay dem bam yag problème moy ali ndjay mi wax sax da ngay nan way mom mom mo ngi payam dañ ko wogul dañ ko wogul rek waaye bu ngay mm-hmm. wo muy sensé kàddu mm-hmm. en fin de mm-hmm. compte kan ngay wuru dëkk nag bu ñu demee ba toll ci ku nekk da ngay joxañ kat ngay wóolu problème day am parce que ñi ñu niroog àlliw njaay dañoo bari wax pour defane lii lu ñu jox la ba ma yegg ci su ma ci yeggee bàyyi maa ngi fàttaliku jour bi <laughs> bi jaañ euh, fana demee fekk si fekki fekki Macky Sall daa Bakar def baa bi hmm. muy intervenir dem na lu ma waxoon fii ci antenne bi petit parti politique yi fi nekk ñii ñëpp poste la ñu wuti bu ñu amee poste noppi keroog bi ma commencé kérok bi mu toogee ci bureau ba légui ma ngi koy woo léegi mu mat ñett weer pour inviter ko du ñëw ndax man eh. cest ni may topé nit ki wallahi du paptal du keneen dama japp ne Sénégal la teg sama kanam bo défé né dañoo xarito ba nga def ci opposition bi wala nga nekk ci pouvoir ba défé né limay wax daf lay jëriñ wala nangam kérok bo duggé ci nguur gi la paré ci yow le sid Lamine doon wax hmm. dina hmm. japp né li ngay wax dama japp ne Sénégal la ñor kérok bo téggé sa tank dem feulé génn ci wax jooja dinaa la woo ne la nag kaay ma indi la vaar yaa ko fi waxoon. Mm-hmm. nga mesurer nag mesurer nit ñi. mais malheureusement foofu la ñu toll tey fi toll mooy gis nga seetlu gi bu kenn tey wax moo ñu moo moo moo moo ñu war moom la ñu choisir média la yor moo xam média internet la média satellite la YouTube la radio fréquence la lu mu mënti doon nañ fa wax liy defar askan wi nañ fay wax lu ñuy dimbale ñun immigré yi. kenn ñu fajal ñun ñooy fajal sa bopp day toll nag mbir foo xamante ni ngeen baal ma ci waxin bi waxin bi dañu naan bu biir bu ñëpp li seen biir di dawandoo ko ëpp fu mooy ko dugg ci dus ba tëj ko foofu lañ toll fii ñu toll nii ci dëkk bi mooy ki ci ëpp fulla mooy ki taxaw ne lii du fi am du fi am gi nag du sëñ bi nee na wote leen ñu dem wote ji fële du am gi du toog na dañuy toog non dañuy jaral ñu jóg suñuy dàll di ko wax di ka dox tant que munuñ fa duñ fa yegg mhm, mhm. sénégalais nag dafa naqadee xeexal waa ji ne woon na ku ne la maa ngi ci sa ginnaaw booy booba ko fa ndax ku la a ànd day tolloog yow mbala mu jiitu la mhm. maa moom bu ñuy daw di am moo lay jiitu te bu li ñuy gis buñ ko li di daw bu ngeen ko moo lay raw maa ngi ci sa ginnaaw doxal rek ñoom ci sa ginnaaw loolu du waxi dara dafa mel ni euh, waxtu yi ñu dese bareetul jéggalu bëggoon ñu laal benn thème bu am importance te it xam naa ni du ñàkk yow di nga ci mën a joxe sa kàddu euh, ñu ngi ak ñaari yeneen ñaari sunu yeneen ñaari invité yu nekk fii ma bëggoon vraiment mm-hmm. ñu laal tomb boobu ndax tomb boobu lu soxal waa itali la mm-hmm. ndax euh, xam ngeen ni ñun waa Italie ñooy dëkk bi nga xam ni samedi bu nekk am na màggal mm-hmm. bi ñu tàmbalee ba léegi laalaguñ ko sëñ Ahmed sëñ Ablaye mm, ñu ngi dëgmal ay xew-xew yoo xam ni ci la ñu jëm ndax defe naa ni mois de avril bi mois de mars bi bari na ay initiative yu ci am te gis naa ni note de service yi commencé wàcc euh, bari na euh, dëkk yoo xam ni ci loolu la ñu jëm tere lépp luy activité yoo xam ni dafay dajale maanaam ay euh, ay ay attroupement mm-hmm. ban njàngat lañ ci war a am ñun sénégalais yi ci sunu xew-xewu màggal yi ndax tey jii boo xoolee euh, fii ba avril euh, gàmmu gàmmu gàmmu gàmmu télévision bi màggalu maam jaara bi defe naa ni cantu suñ saalu sekk bi bari na ay xew-xew yu fi am yoo xam ni euh, mënee suta ñàkk bañ a toog def ci ak njàngat ndax nag bu ñu toogee rek di wax ni yàlla baax na yàlla baax na ba jóg te gis ngeen li xew Milan ndax Milan fi ne nii xew-xew boobu périmètre boobu yaakaar naa ni fii ba li jëm ci weeru avril mars moom nit xalaatul di fa organiser yenn xew-xew yi. ñu mhm. jëmaat daanaka boo xoolee daanaka ñu ngi ci diggante Crémonal Brescia ak Veneto est-ce jaaduwul ñu toog amaat ci benn xalaat ak it toogaat xool suñu xew-xew yi léeg-léeg di wàññi timing bi temps bi ndax nga jël bés boo xam ne da koy def vingt quatre heures daanaka est-ce jotul tam gaa yi ñu jógaat toog ci xoolaat ci defaat ci benn jàngat ma joxaat leen kàddu gi yéen ñëpp bismillah waaw bismillah eh, maanaam eh, li may njëkki ñu baxal ma ci waxin bi mooy danga bind sax ay date mais gis nga fii ba le huit juin ba le vingt trois juin Sénégal ci manifestation la nekk ci Italie am di bu nekk waaw par exemple eh, daayira yeeg cant yi moom mus dakk weekend bu ne lañ koy kal mm-hmm. bii daf cee gën a bari mm-hmm. mais dèjà la au juin anniversaire sëñ Babacar Sy mu ngi ñëw mm-hmm. fii ak fan yu néew après Seydina Limaamu Laay mu ngi ñëw. Mhm. bu paasee euh, tournée ay Mbaye si mi ngi ñëw. Mhm. bu jeexee ñu entamé huit juin ñu jege huit juin lool wala ñu entamé ko te un mois lay durer. Mhm. te bokk na ci li ministère di joxe mooy ñoom li bokk ci seen calendrier républicain ci ay manifestation suspendre nañ ko ci ak manifestation yéen gën a fonk nag muy football. suspendre nañ ko nga xam ne religion la sax fi ñoom. Euh, ñu jàpp ne. gis nga képp koo xam ne dangaa nekk ci sa bakkan wala nga defe ne yow yaa nekku ci jub nekkoo ci sëñ Touba sañ Touba ku jubut nekkoo ci sañ Touba ci sa bopp nga ne dinaa fi jox benn histoire grand du xas la dara wax la frais alpino dañ ne woon sëñ bee fi ñaan kenn du fa jóge keroog ba ñu jógee ci dëkk di jël gëti loo xam ne li dëppoo wut ak sëñ Touba da koo wut ak Touba dëppoo wut ak yoon wi jógee nañ fa mm-hmm. nañ jàpp nag ni fii nii du ab dog du ab xasida mooy mooy téye coronavirus. Mm-hmm. ay instruction lañuy joxe. ñun ñuy ay mbooloo di ko dajale ci biir mbooloo yi muy murit muy xaadir muy tiijaan muy leneen nañ dëppoo ak instruction yooyu. Mm-hmm. moo ñuy musal. ñu nit ñi nga xam ne ñooy kàddu tey Sénégal Italie boobu amuma feneen réew de mais itali moom waxee fi ñu dégg la tëxuwut YouTube yaa ngi fi télévision YouTube yaa fi.

beneen bi ñu ñaax doomu sénégalais yi fi ne ñu bàyyi diaspora 24 ak Africa 7 ak keneen di déglu média italien yi. Mhm. parce que mhm. méta média italien yi ñoo leen di informer li xew Italie RTS du leen ko wax 2S du leen ko wax Africa 7 du leen ko wax diaspora 24 du leen ko wax. Mhm. ba ñu commencé ba léegi gis nga leer na la ne Sénégal dégg nañ lu xew leer nañ la Sénégal information yaa fa. leer nañ la Sénégal mbir maa ngi fa mais presque déggoo média Sénégal bu ci wax mhm. moo di ñun li leen intéressé daa bëriwut ci ñun ñun xam nañ ñu fu ñu teg ñun ñoo fa tegul suñu bopp mhm. liñ ciy wax akas néew yéen ak ñun ñun ñoo ci yem ñu ci def waxuñ kon na nit ñu tëgg ci di wax information bi ci média italien yi déglu leen rajo yi italien yi mhm. déglu leen télévision yi italien yi ñu leen jaax ci ñu nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk di wax ñoom ñuy wax ak ñoom ci Sénégal ñu dëppoo ak li li lu mel ni li def maanaam dem waxtaan ak dem waxtaan ak li nga xam ne ñoom ñoo di ñoo di ñoo di Sénégalais yi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne ñu ngi liir ne communiqué yi ñu ngi koy def ministère de la santé ñu ngi koy def ñu partagé ko ci réseaux sociaux yi ñun ngi jël ko ci réseaux sociaux yi jàllale ko nit ñi dégg ko. Mhm. mais nañu deppo ak yoon réew bo fa nekké di kaas sama réew topoto wuñ ma sama nangam da ngay da ngay da ngay deppo ak yoon bene côte d'ivoire ak mali depuis vendredi lañ wax ak seen askan mhm. Côte d'Ivoire suba ci ki ma déggoo nee na ma lañu def lañu def ki bu ngand manifestation bu bu astafurla rencontre bu ngand bo xamanteni président fédération ak association yi lañ leen wo ci ambassade pour wax leen yeen matuwaay lañu jël je ne dis pas que c'est pas tard pour le Sénégal mais c'était pas encore tard Communiquer bi ma njëkk a dégg rek moo ambassadeur bu bees bi dana def benn tournée fii ak le 29 ci Rome ca ca ca Milan yaakaar naa bu bu yowoo sax ñu teg ko fi suuf te jël yow. mais loolu loolu mënatul nekk parce que les conditions ne sont plus réunies pour euh, dajale mbooloo. grand. Mhm. gis nga Sénégal gi ñu né. bu len kon bu len kenn wéddi la dara mënul nekk. Mhm. Wallahi la bu len gëm ne mënul ne te gisoko. man xam la laa gëm ne mënul ne. Mhm. li ma gis ndax dara dara joomalaguñu bu ñu defee lu bees nag ndokk loolay leen war mais fi mu ne nii moom mënuma leen a wet bi mënuma leen jàppal lu dul lu ma gis ñu ñu ñu koy nar te di ko def coronavirus bi ba mu jógee ba léegi ñooñu lañ xam ci ay média ci ci ay ay boo demee am na ñeneen ñu wax ñu jël seeni matuwaay wax ak seenu askan buñ ko defee xayrul buñ ko defut ñun nañu sensibiliser ndax sensibiliser rek moo ñu war mais ku ne xam na ne consulat bi la muy dajale ci ay nit ci jour la muy dajale ci ay nit ci ab bés te ñu ne li koy xawale mën naa jaar ci ngelaw mën na jaar fu ne wàllu nit ki. Mm-hmm. buñ ci jëlul ay matuwaay Italie ci boppam danañ ci jël ay matuwaay. Mm-hmm. loolu c'est sans doute ngeen baal ma mais daal sensibilisation bi mooy ñun nañu wax. Mm-hmm. mais ñi ñuy déglu ñëpp nañuy déglu rajo ak télévision italienne yi. ndax Italie la ñu nekk. te it ñi ñuy jàpp buñ na fi sénégalais la yàlla bu mu dal benn sénégalais ci ñi mu dal yàlla ñu wér. Mm-hmm. ba ñëpp wér fa mu jeex mais ñi ñi muy daal ñëpp duñ danañ defal privacy bu amoon bu fekkoon Aliou Ndiaye la daal it danañ ko nëbbal Aliou Ndiaye mm-hmm. parce que danañ ko nëbbal côté fexe ba nit ki dugg ci fexe ba du dugg ci wàllu euh, diw la wala feeñal ko mm-hmm. mais daal nan jàpp ni information bi ñun la war ñun d'abord mais nag prise de décision yi moom autorité la ko yàlla may donc autorité boobu na ci taxaw mais li ñu war daal nañ ko def bokk bi ngeen baal ma su pour ñeneen ñi mun a defaat def seen seen mun a seen seen seen seen contribution. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw euh, sëñ Ablaye sëñ sëñ def defe naa ni euh, laaj bi ma mujjee laaj yéen ñëpp dégg ngeen ko euh, ci wàllu xew-xew yi nga xam ni moom la ñu war a dëgmal dëkk bi mel ni lu ñu. Euh, jubal ci njattuñu pour ñu am benn ligne de conduite euh, euh, ban jàngat ngeen ci war a am ak it lan ngeen yaakaar ni moom mooy war a taxawaay bi nga xam ni moom la communauté bi war am surtout nag daayira yi nga xam ni mooy moo xam murit la tijaan bépp mu war a doon ci communauté bi en en waaw maa ngi sant bu baax sëñ Aliou Ndiaye moom moom itam ndeysaan ku baax la yàlla dogal na mosu ñoo gisee waaye wax dëgg yàlla daan nañ jëflante yoo xamante ni koo mës a gis bul dafa jaar ak yow rek war nga xam ne kii moom nit ku baax la te doylu no ngi koy ñoo ngi sant bu baax di rafet bu baax analyse yi nga xam ne rek ñoom def nañ ko suñu ko ak suñu Ahmed mooy bu ci lim doon wax ci wax dëgg autorité yi nga xam ni man dema diggoon seen slogan boo xam ne seen njiit loolu la waxoon mooy la patrie avant le parti ma gëmoon ko lool waaye gis nañ ni <laughs> lii suñu àll yi ñoom ñëpp li ñuy wax dara du ci dara dara du ci dëgg mu kàllaf lañ euh, xam naa moo tax ñoom ñoo ñu nekk ci nguur ñëpp kenn du ci yar sikkim ndax sëñ Abdou Xaadir ndeysaan sëriñu sëñ Ahmed moomu ginnaaw bu ma sa ñëw ni ko ah sëñ bi kii de moom kii de jarul ay waxam jàpp daan la tuub ko tuub ko kooku am na sikkim waaye boo gisee ñi ci gouvernement bi daan kenn saxal lu ci sikkim ndax li ñuy wax dara du ci dëgg mm-hmm. dafa dafa yéeme ndax mënoo wax un plan bien défini wax kook ay góor nit ñi jàppe la gor ko ni lii mooy sama feuille de route nga falu mu mel ni dañ laa roppil feuille boobu jox la beneen euh, lii li ko ci barma daan wax naan buur du mbokk jublu ci ni buur daa amuti mbokk waaye boo xasee falu buur réew mépp yaay seen yaay ñooy say mbokk kon doo jël yenn euh, instance yi jël say mbokk rek teg fa boo demee consulat ba da nga xam dara euh, daanaka li ngay wax benn benn ethnie bi moo fa nekk loo xam ni c'est pas raisonnable maanaam xel sax da du nangu ci xam ni ñëpp ko bokk kon yaakaar naa war nañu mën a doxal doxal éthique boo xam ni wax dëgg den fi bàyyi aw woy ndax lu dul jeex amut Senghor a ngi fi woon dem na Abdou Diouf jaar na fi dem na Abdoulaye Wade dem na Macky Sall ak waa këram ñëpp dem ndax adduna moo bind noonu dara du fi sax kon jar naa bàyyi xel daal ndax euh, ba fi mu boo lijjanti woon ba toogal fi un troisième un quatrième mandat lakuli ali day jeex day jeex kon yaakaar naa loolu du faj mbir mi maanaam dox ci déontologie boo xam ni diplomatie si nga koy teg ci loxo yu wóor da nga teg ci loxo yu wóor wóor yoo xam ni dañaan am expérience danaan am yërmande ci nit ñi mais liñ naan li italien wax de jante seen scrupule yi à volte moom ngay gis mais xoolal euh, Spallanzani bu Rome mais bu ñuy def briefing bu ñuy def euh, bu ñuy def euh, conférence de presse mais ambassade ambassadeur u Chine bi day toog. Mm-hmm. pourtant bokk ci mm-hmm. mm-hmm. waa parce que ñaari chinois lañ fa internet ñaari chinois rek. mais ambassadeur day toog ba toog keroog gis naa fi deuxième jour troisième jour bi. mu jël devance bi daal ne nañ bàyyi brutaliser bi ñuy brutaliser chinois yi ci biir dëkk bi mais loolu mm-hmm. c'est une c'est une autorité mm-hmm. c'est une autorité il yow nga nekk ci biir mel ni ginaar gu tooy rek yow amoo benn c'est-à-dire yow loo c'est-à-dire amaloo njariñ li ko wax yow wax dèjà Pape Demba ko da ko wax da nga yow ñun bâche bâche àll cer lañ dal ñun daal li feeg mandat baa ngi dem ça boo juumee ci code bi ñu wala buñ ci juumut bi ñu la waar sax ne la jot nañ ci loolu mooy mooy sunu moodu moodu yi nga xam ni majeur parti bi Italie lañ nek malheureusement yalla nañ ko def na ngir yalla ndax boko ko defut ngir yalla dañuy perte dañuy perte dañuy perte ay perte xaalis do am ak pay kon luñ ci def rek nañ ci am yene ni yalla dal lañ ci liggéeyal motax ñu koy def mhm. eh, bi ci des manifestation yi nga xamni ñi ngi ñëw calendrier bi tambali na ubi euh bala nga ni naam da nga fay ne extérieur lañ nek ñom ñu jël ay dogal du racisme du discrimination parce que ñoom boo xoolee seen dëkk dañ ni toute manifestation même religieuse loolu kay ñoom bàyyiwul ñoom seen bopp sax tax ñu wax ñun taxul ñuy wax de dèjà seen bopp tax ñu wax mhm. kon ñun ñit ñu ngi ci biir te période de quarantaine bi li fekk levé wuñu levé urgence bi émergence bi ku fi def beneen manifestation wala nga indi fi loo xam ne dana jiyoog ñoom seen loi sanitaire yi bu boobaa da ngay man ngaa maanaam li ngay sooke doo xam pan lay yem ndax ñëpp nga ci laawale te bu boobaa ñoom dañ ci daal di profité parce que nit ki du du euh, liñ naan kuy kuy peru kuy teggi kuy teggee ay ca moom du nekk fii ñoom di ñu jiiñ yenn yi di ñu xaar yenn ñi bëgg am ci ñun bunt te amaguñ ci ñun bunt ñu leen di ubbil ab palanteer pour ñun fay jaar kon nañ ñaan li jeex ak jàmm balaa looloo ñëw mais malheureusement bu dee loolu am na bu boobaa nañ tënku ci loi réew mi loolu kat lañ suñ murtala waxoon tënku leen ci loi réew mi ngeen ne te xam ni sunu euh, ñun ñoo ciy rek ndax virus boo xam ni dafa divulgation dafa gaaw jàkkaarloog nit wala muy tisli wala muy sëqat wala ngeen laale rek façon yooyu mu dugg la te amaguñ c'est-à-dire amut kuura c'est-à-dire amaguñ ko faj ñi wér ñëpp ñoom ñëpp kenn ku ne gis naa tey ji briefing bi ñu def dañ ni ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo wér ban faj leen ñaari virusu anti Ebola ba lañ jël benn bi virusu sida bi lañ ko jox lañ ko jox looloo lañ faj kon amaguñ euh, un vaccin bien bien kii bien déterminé boo xam ni mooy faj euh, coronavirus bi ke kenn ki lañ ko faje mooy la faj Ebola kenn ki lañ ko faje mooy li faj sida kon dañuy tàndatu amaguñ te OMS wax na ni li ci yeeg six mois mënuguñu am vaccin c'est-à-dire mënuñ temps bi mënta gaaw ba am lu moins de six mois ñu am ci vaccin kon précaution da cee war ku wirut mënoo dem jàkk ja jàkk ja moom boo wirut mënoo faa dem eh, bu defee eh, yi ni def rek nag kenn ku ne sëñ bi man nga ko def sa kër te du tee yool ba kam koy defal mu jot ci mooy gën a sedd mooy ëpp sécurité ci ñun mooy ëppit war ma ci réew mi ñu nekkal ndax nit du nekk ci dëj nga dikk fay ree te daal jàpp naa ne rawatina nag yi ngay wax sunu ndaje yi nga xam ne lu ci ëpp c'est lucratif c'est-à-dire xaalis rek ko tax a jóg ci bari sellatut man li li li sëñ Aliou Ndiaye di wax dama koy waxtaanee majeure partie màggal ya daan xew Sénégal yëpp gars yi maanaam andi nañ ko ci réew mi kenn ku ne wut fi màggal ñi wut fi ay journée culturelle ñi wut fi semaine culturelle te lu ci bari Pape Demba dama ni xaalis dong ko tax a jóg mm-hmm. yàlla taxut yonent bi doxut suñ tubaa taxut utub xaalis dong ko tax a ndax màggal yooyu boo ci toogee duñ la wax lu lay boo laajoon ñi ci dem ni la kii waxtaan lu wax mën la wax lu mu wax jigéen ñi dajale fi ñu toog waxtu julli du jot ban julli ndax benn lañ këppoog lañ diwoog lañ kii lépp jaxasoo ñam yi ñuy togg dañ koy wetti dañ koy tuuri xaalis bi ñuy dajalee di ko ci def am na nit ñoo xam ne ñu ngi ko soxla fopp te defu te ko ci ñoom te ñu ci bari dañuy ànd ak ñoom di nekk ci yooyu benn ñu ñàkk seen liggéey wala ñu tawat ñin daan àndal sax benn duñ leen seeti duñ leen woo duñ leen gis xamuñ ci lu nekk te damay wax ni dajaloo jàng alxuraan xasida baax na waaye xool ñi woo loolu nga jox leen ko moo gënal sëñ Tuubaa foofu waaw maa ngi tuub baax di leen jégalu salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Diop jërëjëf jërëjëf mel na ni te jii xaw nañoo romb sax waxtu bi waaye nag euh, li ñuy wax émergence oblige oblige Euh, sëñ am la euh, defe naa ni. Euh, ñu toll woon ci difficulté li nga xam ni moo di xew yi nga xam ni moom la ñu dëgmal ndax boo xoolee liy tàmbali ci weeru mars ba juin lu ci ëpp ay weeru programme la programme bu fit sax tey jii mu mel ni Italie dina ko ressentir te war nañu amaat benn taxawaay buñ ci am yaakaar naa ni kër suñ jubaay dinañ ci dinañ ci xoolaat. xool calendrier bi seet nuñ koy defee ñun it war nañ ci am ndax ñun comme lu ci ëpp bari na yéen fa ngeen nekk lu ci ëpp yéenay dem ci autorité yi di wax ak ñoom yéen a nekk tramité yi euh, euh, ban taxawaay eh, ngeen ci war a am ak ban njàngat ngeen ci war waaw Diouli man de dafa am euh, ñetti aspect moom laa bëggoon na indi ci wax jooju bi ci njëkk damay fàttaliku sëñ Massamba Diop Samb Euh, dégg naa ñu wax ni dafa bi muy bi muy bi muy ñaanlu sëñ Tuubaa dafa ne ko Mbàkke dama bëgg nga ñaanal ma nite mm-hmm. kon nite mooy baasu l'essere umano da ngay nite nite mooy nga mën a ràññee xam liñ te boole li nga bokk ak li sa yoon nekk xam luñ koy wax yu mel noonu donc am na loo xam ni buñ ko defee dañuy indil suñu bopp jafe-jafe mooy la wax ci njëlbeen ga su fekkee dafa am benn benn benn benn loi benn décret bu génn wax ni église bi may ñu leen ñu fay daje kon waxaale yu jullit di sëñ bi loolu moom wax wax yàqu la mm-hmm. kon nag képp koo xam ne yow jal jal jalgati nga loolu yow yaa bëgg liggéey sëñ Tuubaa bi wala liggéey maam Alaaji Malik wala wala liggéey Cheikh eh, Cheikh na si saat bi saa ñu ñu ñu ñu saa dakkal ko ndax boo ko defee dañ koy tëj kër sëñ Tuubaa gi ñu nekk ñun mela ci benn kondom ñu la nekk nga xam ni euh, mbir mi dafa gaaw tellement ba ay côté dix sept heures dix huit heures ñun ci liñ ci soog tënk mais ci diggante bi rek waa condom ñoo yónnee nañu benn message vocal euh, sëñ am gay mi nga xam ne moom mooy moom moo yor wàll woowu bokk ni ko nonostante de la décision euh, della regione Lombardia abbiamo visto che i bambini che i ragazzi continuano a fare les preghiere les preghiere mooy njàng xasida gi mm-hmm. te pourtant ñun fekk na boobu ñun man maanaam ci ci diggante bu gàtt def nañu donc benn vocal yónnee ko waa groupe mais teewul am na ñoo xam ne jot nañoo yegg yegg saa ba noppi waaye moom it ci matam waxtaan ñoom wax leen ni leen affaire dañoo bett mais xam leen ni à de demain benn manifestation du am du am ci biir ci biir donc daara ji kon pour dellu soir rek sëñ Massamba Diop loolu moo doon ñaan ni dafa bëgg ñu may nag suñu tubaab may mu nite kon ñun loolu moom la ñu war a adopté benn deuxièmement Serigne Moustapha Saliou dafa wax benn taalibeem ni ko mbokk daal dafa dem xam nga moo di fii rek dem siyaar ko kontaan ni ko mbàkke waaw ñun dafa nekk ñu ngi fay dund suñu diine ñu ngi fay jàng suñu xasida ñu ngi fay amal suñu ñu ngi fay def suñu ñu ngi fay def suñuy màggal comme ni ngeen wax ni sëñ mi ni ko réew moomu ngeen nekk luñ leen fa may luñ leen fa may laaw donc ça peut être mille comme ça peut être un luñ leen fa may jël leen lañ leen may mu yem ci yéen képp xam nga lu tax mu ne ko ah mu ne ko tubaa gii ma nekk pape boobu nekk Rome bu ñëwoon fii di ma fi ñaan suuf ngir def fi église du ma ko nangu yow doo ko nangu. Hmm. donc loolu mooy li dëgg. Hmm. donc ñun tey jii. bu waa Italie demoon Touba ni nañu leen may pàkk boo xam dañu fay def église kenn du ko nangu ci murid bi kon nag yow nag ginnaaw yow loolu yow ndoo ko nangul yow ci sa réew. kon hmm. yow it sëñ bi lim la may fii lim lii ma la may yow da da nga yem ci loolu donc kon kon loolu mooy nite. li sëñ Ablaye Diop wax léegi. waxuma màggal yi xew Sénégal sëñ euh, doomu sëñ Fallou bi def bi def xutba àjjuma ji sëñ am nee na moom compté na le nombre de màggal que les les mourides laa wax organisent au niveau du Sénégal mais sëñ bi ñun mboolem mag it créé nañ ko Italie ba yokk ci sax yoo xam ne xewagul Sénégal yooyu am na fi donc li ci des li ci des nag léegi nag kon mooy am na loo xam ne on ne peut pas transformer le Sénégal à un Touba mënut a nekk mënul nekk ñun lii la ñu may nangu nañu ñu sol fi suñuy baylaat nangu nañu ko ñu def fi suñuy màggal nangul nañu nangul nañu nangul nañu nangul nañu li ñu nangul nañ ko nangu mais nag ginnaaw lii suñu borom wàcc na ko te bi mu ko wàccee ci ñëpp la ko wàcc parce que sopp maanaam seppee seppeegul chinois seppeegul sénégalais seppeegul kenn mbokk mi wax na ko léegi daal nii euh, xaw nu ma ko waxee waaye nag suñu borom moom li muy dogal dogal na ko ba noppi waaye nag ñun moom am na lu ñu gëm li ñu gëm mooy ay ndax balaa bi moom bu muy ñëw kenn séntu ko woon waaye ginnaaw xas na ba yegsi nag la la ci musal moom mooy les préventions yooyu ñu ñu wax waaye la ci des nag ñun nag gëm na Sëñ Tuubaa ba tax na xas yi nga xam ne moom wax na nii ni ko Sëñ Abdoulaye Diop waxee waxee léegi képp ko jàng suñu borom mën na see musal ñun loolu moom lu ñu gëm la te loolu ñu dund kon li nekk nag ci wàllu màggali moom euh, am na ku ko wax léegi bu ñu sax buñu sax xalaat ay le huit juin wala le mais man loolu sama conseil loolu sama sama bopp la Euh, te sëñ Pape man dama jàpp ni rajo Xassida online nii moo ko defee tey diggante sëñ Ablaye Diop euh, sëñ sëñ Alioune Ndiaye ak. Euh, apparemment am na benn groupe whatsapp bu fi am boo xam mi association Kër Sëñ Touba wala des daayira Sëñ Touba del Tali mooy fédération bi nga xam ni dafa mel ne moom lañ moom fi bëggoon taxawal. ndax li ma leen wax sànq ni leen sëñ sëñ bi sant jóob sëñ jëwrini kuréelu kuréelu Zingonia sëñ Abdou jóob bi muy jàll information bi jàll na ko ci biir groupe boobu kon dafa mel ne dafa yanu maanaa actuellement nii ku mel ne yow wala ku mel ne man wala ku mel ne Ablaye Ablaye Diop wala ñun ñi nekk fii ñu mën a contacter ñooñu donc su ma toogee dama naan la ku mel ne Abdou caam de Abdou Thiam de Brescia parce que yàgg na ci daayira bi ma nga fa euh, ak faneen ak faneen ginnaaw ñoom am nañu seen am ñu seen am na ñu benn groupe boo xam jëwriñ yaa nga fa calendrier bi génn na manifestation ni ngeen ko waxee normalement samedi démb bi la tàpp ba bañ weeru koor bi suba la ñuy la ñuy um lépp mais yooyu sëñ bi mënut a nekk parce que foo ko yóbbu fu nekk donc yow yaa yaa ngi ñàkk respecté la loi loi nag boo ko respecté ay daan la cay fekk kon ñun ginnaaw xëy na xëy na ñoom xëy na yëguñu parce que débat bi c'est un débat très restreint entre quatre cinq personnes muy véhiculé ci benn ci benn réseau donc ñu koy dégg xëy na ils sont à mais ñëpp yëguñu léegi nag kon dafa jare donc indiwaat le débat mooy waxtaan ak sëñ Fallou bu Brescia waxtaan ak sëñ du Diop bu Milan wax euh, waxtaan ak keneen ak keneen jiw ñu xam ni man de am na bokkoon na ci semaine yi may defee

y a des réalités yoo xam ne sëriñ si bu ñu ñëwee ñoom ñooñu ci mën a dimbali ku mel ne sëriñ Mamor mi nga xam ni ala kulli àllin moo ndonaw sëriñ Moussa ni bu bu bu le huit juin jotee normalement il devait y avoir un staff bu toog a sëriñ donc dëkk yi sëñ bi jaar yëpp ñu xamal ne ko Milan de ba nga fa jógee daaw lii moo fa xewoon lii lañ fa réalisé lii mooy suñu jafe-jafe parce que c'est le représentant du xalif ci diaspora moment bi ma lay wax mais bu fe man jamono jama ci génnuma ci mais jamono ji ma ci bokkee mais man bu sëñ Mamour ñëwee dama ko tegal programme bi la li ko bi heure bii lañuy nekk hôtel heure bi la ñuy dem salle bu demee li ñu fa def ak lii ak lii ak lii bind ko dans un programme def ko dans une enveloppe teg ko dans son chevet sur son chevet bu ñëwee ubbi ko xam ni li c'est un homme très diplomate bu ñëwee lan ko wax loolu lay respecté bu changement amee yow yaa ko changé mais du moom koo dama yaakaar ni kon yanu na ñu war a mën a def un débat avec les kër sëñ Tuba avec lay daayira xamal leen que ni suñu sëriñ ci fi ñëw suñu njariñ rek la ñuy indil waaye nag am na situation bu xew boo xam faaw ñun ñu xamal leen que ni ren jii kat amaana mboolem màggal gu ñu fi prévoir du mën a ne man ci fédération sëñ Abdou Khadre laa bokk sunu sunu sunu bisib daayira jàppaguñ ko mais man li wóor wóor mooy man dinaa saisir man officiellement sama sama jëwriñ ndax am na loo xam ni loi la bu génn ñu décréter ko kenn xamul est-ce que ça va prendre une semaine deux semaine quatre mois six mois yàlla rek xam kon nag boo ñëwee ci réew ñu ne la réew mi soo bëggee bokk nii ngay doxe kon da ngay loolu ñi xam ne moom lañ lay te man toujours li may wax rek loolu moom buñ ko defee mooy ñun dina dinañu muccal sunu sunu kër Sëñ Tuubaa yi am mais sunu kër Sëñ Tuubaa yi fii léegi li Sëñ Maamoor bugg amagul mooy am benn kayit boo xam ne day lëkkale mboolem kër sëñ Tuubaa yi mu nekk donc alalu sëriñ bi parce que ku ci nekk fi ne nii kër sëñ Tuubaa yi en ordre dispersé amul benn kër sëñ Tuubaa boo xam ne yow la ngay dogal la ngay la la ngay dawal sa biir kër sëñ wala këyit ba nga yor moo méngoo ak ak këyitu beneen beneen beneen dëkk yor parce que effectivement li ko war aussi mooy Italie yaatu na et puis les mu euh, tuuti chaque région aussi a ses réalités y a des régions yoo xam ne effectivement ils sont très accueillants par rapport à immigrés mais y a des régions yoo xam ne beaucoup bëgguñu dégg koy wax ay wax euh, les les associations des sénégalais qui sont en France ils ont vécu une chose pareille il y a 10 ans il y a 20 ans ont de demee une sur bois mais naar ñoo fa ben complexe boo mais mi ngi mel rek tey dama naan la euh, ko cinq fois ben complexe ont xam ñoo ko jënd école di jàngale arabe di jàngale ont di français des écoles qui sont reconnues euh, par les lois euh, par les lois donc de la République française. Mais alors, les ils ont vu que dans le passé, ils ont eu des problèmes parce qu'ils étaient en ordre dispersé. Ils ont essayé donc l'association des musulmans de France, l'association des musulmans de Paris, actuellement euh, l'association des mourides de Paris. mais mais ben kàddu cas, bu bobu day ñëw ba ba téggu ci yi nga mi la la li réew mi ñu am suñu école combien de fois il a proposé donc de faire les écoles une école sénégalaise mm-hmm. non une école française parce que l'école française a ses réalités mais il y a l'école sénégalaise le mm-hmm. Sénégal am ay réalité habitudes yu baax de une buñ ko Italie mais Pape Demba combien de fois lañ lay interpellé yow ci mbedd mi ni la xanaa yow l'islam bi ngay dund dafa wuute ak l'islam bi naar bi di woote dañ la dañ lay wax mm-hmm. waaw pourquoi c'est parce que yow l'islam bi ngay bi ngay dund am na lu ko lay mooy mbiru mag ñi li la mag yar ak li nga wax yow loolu rek nga véhiculé yow donc yow loolu moo la may lii kon loolu buñ ko fi dindee ay jafe-jafe lañu ko am c'est fort probable que ñu mun fi am une école mais loolu lañ koy may mbokk moy yaakaar na am na ko wax sànq mooy mbokk mi euh mbokk mi syndicat dafa ni dafa mel ne jafe moy mooy xol yi ñoo ànd effectivement loolu am na fi xol yi ànduñu parce que bu xol yi àndoon euh, eh, eh, eh, kii Pape Demba euh, les communautés qui sont là communauté chinoise Bangladesh sëñ bi marocaine sëñ bi ñu réaliser ci réew mi loo xam sénégalais yi ñu ñu fi jitu fuuf mais problème bi ci nek moy Ameth Ndiaye meilleur jox benn mille euro nangu ko investir ci projet bi nga xam mo la pap Demba yor parce que day Pape Demba da koy nax pap Demba momit ma ngay fexé ba xëc ci donc 1000 euros sëñ ali mu euh mu euh ablay Diop xëy so nekk ah sa way projet bu kat euh, donc tout est tombé à l'eau donc donc yoy nonu xewna da dans la communauté sénégalaise malheureusement donc dal man dal ci walu teunk daal jëwriñ man lima japp moy jot na man de gëw ma ni man Ahmed Ndiaye gëw ma ni màggali ren moom dina am moom loolu moom je le dis haut et mm-hmm. teguma ko ci daanu teguma ko ci fenn dama ko teg rek xam ni réew mi réew luwaa la réew mi ñoom mais sëñ bi maanaam ñi jiite réew mi am na ñoo xam ne waxuma religion musulmane mais bëgguñu wax sax religion catholique ñi ji ñi jiite réew mi maanaam gouvernement bii weesu il savait dire que on ne veut de religion mais bu ñu waxee loolu kon waxuñu wax ñu jullit mm-hmm. mooy li si Abdoulaye Diop wax léegi en commençant par eux fii lañ fi taxaw amul luñ fi yokkul bi Mm-hmm. xam luñ ko waxoon nee nañ Pape Diop émigré yi nga wax bu dee loolu kon jël nga yóbbu bu leen Sabatikaa lañ ko waxoon ah, kon nag yow ki nga xam ne yow moo jiite réew mi moom moo ni moom bëggul diine kon waxul yow sabas mm-hmm. yow moom mbasam ci basam ci basam say la tàmbali ah, kon nag yooyu nag simit nag boo amee nag ci réew ñu ciy demee xel ñu ciy demee xel mooy bañ a dem ak suñu bëgg-bëgg ak suñu xëbër xëbër parce que lañ ñuy def ci biir daayira ba mën nañ toog suñu biir kër def parce que yàlla mo ci biir daayira ba ak si biir kër ak si na la te léegi vraiment les moyens sont li ngeen def nii yéen tey mais li ñuy wax ci màggal mais lan lan mooy la may màggal màggal mooy toog waxtaane mbaaxam ku baax màggal sëñ Abdou ñëw na Mbàkke mbooj sëñ euh, euh, sëñ euh, mtóor yi sëñ Mbàkke Mbuub boo jëwri sëñ Abdou Xaadir woo am na njaay ñu waxtaane sëñ Abdou Xaadir sëñ Abdou Xaadir ni mu dikk ci jamono bi mu ñëwee nan ko dundee lan la fi réaliser lan lan la fi bàyyi lan la lan lañ mën a jàng jàng ci loolu donc màggal donc mooy fàttali nit mais loolu on peut bel bel bel bien le faire euh, donc à travers euh, ces émissions de rajo là communauté bi ko yëg daje bañ daan daje nag Pontevico ren mënta nekk parce que lii moo xew ci réew mi te mm-hmm. ñoom it dañoo bëgg sàmm seen réew kon daal ma daal sëñ sëñ sëñ Pape xam naa ni <laughs> xalaat boobu xalaat boobu laaj mel na waxtu yi moom tey jii ñu sax ni wax na waxtaan nañ ñaari waxtu ndax <laughs> euh, am na solo am solo boo xam ni yëguñu sax temps bi Euh, xanaa kon rek dafa am mbokk mu dugg léegi Baye Fall mën ngaa tëj bi ndax waxtu yi ñu joxoon moom xabaabal nañ ko lu bari. Mm-hmm. ñu dalal mbokk mi euh, jéem a tàggatoo rek euh, xoolaat ñaan yàlla suñu borom mayaat ñu ñu fekkee semaine bii di ñëw lépp lu ci am comme développement rek ñu jéem a xool lu ñuy def ba yàggali ko salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam. waaw tur bi naka la sëñ bi. Baye Fall waaw ah, sëñ Baye Fall bisimilah fooy wootee. ñu wootee fii ci Touba. waaw ah, jërëjëf jërëjëf. waaw suñu xel dal na de. ñu ngi ñu ngi siyaar ñu ngi siyaar moom. sëñ Baye Fall Ndiaye da Ansar. waaw. da ngay siyaar da ah, ngay siyaar ku baax ñu ngi siyaar euh, sëñ Baye yéen ñëpp rek. jërëjëf jërëjëf. Euh, waaw xam naa fi ngeen kii nii fi ngeen waxtaanee nii am na solo trop. man damay damay bëgg toujours sénégalais yi eh, damay nekk foofu lu lu sama problème la woon Ameth Ndiaye mi xam na ci dara dama ci woo di wax ak moom eh, ci nit ñi nit ki nit ki Pape Demba fu muy nekk man koy wax toujours hmm. démb rek xoolal rek am na ñu ñaar ñu ma woo ba ñett xam ne man maa leen di wax affaire bi ni ni muy demee foofu boobu ba léegi maay topp information bi hmm. Pape Demba xoolal sànq ñi lay wax am na benn waay bu ñu moom moom vingt quatre heures journal mm-hmm. bi jox 24 heures moo ko man la doon jokkool pour ma jox ko information yu gën a parce que li ma doon laaj mooy lombardia nu mu demee explication li ma laaj fa la consul ba nek ak nangam pour bëgg ci am lu leer mané ne ko nag comme mom mom mom mom Ablaye Diop man jappalé nako ci ci limu nek ni bam yex mu yegg si fii ma ne ko nag lii dafa aaje ngeen def ci yeen yeen may xol ba xam ay journaliste ngeen wala déet parce que li da ngeen ci wara wax parce que problème bi moy siin lañ doon wax nangam nangam mais Italie ak Sénégal dafa jégué parce que mhm. Pape Demba xam nga Sénégal ak Italie moo gën a jege. dëgg parce que nit ñi ñoo ngi dem kon ñoom ñii ñoom journaliste li ma doon wax Pape Pape li ma doon wax Ablaye Diop mooy nañ reeteet affaire bi noonu picc yi di def jaan buñ ko gisee wala lu dul noonu di ko di ko yuuxu. Mhm. ñoom nañ ko wax ba nit ñi dégg ñu def ñu jël ci ay matuwaay. moo gën ko mhm. parce que man Pape Demba bu dee ni ma koy suivre yaa ngi ko ni suivre xëy na niñ koy waxee ci journal bi nii sax demewut noonu mais affaire bi mi ngi dox parce que bi ma xëyee ay 19 laa déggoon. bi may tëdd maa ngi dégg quarante six bi ma yow ñu ni soixante dix neuf actuellement ni may wax yow nee nañ cent cinquante ak ñett ñu dee mhm. affaire bi te ni muy lawee dafa gaaw mhm. kon léegi kon lii Ameth njaay di wax nii loolu Sénégalais war nañ leen ci informer te ñoom da dafa da ci am ñu bëri quatre vingt dix pour cent yi daf mel ni dañu ñëw Italie rek mu ñoom mel ni dañu nekk bi ñu nekk itali Sénégal lañ nekk daal seen yoon ci li li réew mi dañuy fàtte loi jàpp nañ ni ñoom comprendre il paraît que nag affaire bii Mohamed Ndiaye da da te tëjee ñu def ko seen bopp nag xam ni hmm. foofu ay loi moo fiy dox bokkut ak fii hmm. benn hmm. te leen ñuy bëggal mooy seen jàmm ñoom ñooñu man man xoolal fi may waxee yow nii rek jot naa ay ay audio yu ñu ma yoo xam ni dëkk yu bari pour pour pour pour liñ ci wax mooy e, tëj nañ kii comme aaye nañ mees yi nangam nangam mais kook loolu buñ ko aayee mais sa sement ñun nag voilà bu demee mhm. ba ay seen mees yi ñoom aaye nangam ak nangam mais loolu ñun dañ ko war a acci taare problème man man loolu laa gis mhm. euh, ñu ñu ñu bàyyi comme li Mohamed wax léegi ñu ñu dellu si daal léeg-léeg ànd ak suñu xel jéem tamit fi ñuy nekk ñu fekk si leen ci ci ci ci ci li ñu nekk ñoom dégg nga ñu fekk si leen intégré ànd ak ñoom te xam ni lii moom day loo xam ne yàlla moo ko indi te lii ñuy def lii ñuy bëgg ñoom pour pour pour pour pour muccal seen seenu seenu xeet asamaanu nit dañ ko wara bëgg parce que foofu lañuy dund wala dit deug la ah foofu lañuy dund man dal ci sama xam-xam bu gatt seen kii bi rafetlu naa ko xam naa damay bañ a yàgg ci ligne bi mhm. lool mhm. mais fi ma leen fekk nii rek foofu foofu donte dama dugg si nii foofu ci laan ci loolu laa nekk di billaay dem ba léegi tiwuma boole ceeg nag eh, suñu defee li yépp xoolal Pape dem ba eh, ndimbal na cay fekk loxol borom mhm. yàlla dëgg la mais yàlla yàlla bay sol tool sallallahu alayhi wa dafa am ku ñëw yor gëlee moom nuyoo bi mu ñëwee laaj yonante bi ni ko loo indi mu ne ko gëlee mu ne ko anam mu ne ko bàyyi mu ne yeew nga ko mu ne ko naa ko yàllaa ko yonante mu ne ko demal nga yeew ko te dénk ko yàllaa ko yonante dégg nga wax bi mm-hmm. wolof day wax fagaru bala ngaa lakkale ñun disposition yi ñu war a jël nañ ko def dégg nga nangam mag nangam bu ñu noppee nag door a jël nag ngànnaay li yàlla wax muy ñaan ñu door ko def du dëgg. dëgg la. mais nan respecté dégg nga respecté li ñu sant bu ñu noppee nag bàyyi suñu bopp yàlla. ay mhm. man man man man man man loolu laa di yaakaar ni mooy mooy li nga xam ne moom lañ ñu digal. ko mhm. Mhm. toog te tamit diine loolu la santaane lu mel nii bu amee fu mu nekk bu fa nekk da ngaa war toog. dégg ndax nga yàlla mën laa musal nangam ak nangam ak nangam ak yeneen ak yeneen ak yeneen. vraiment daal yéen nii ngeen di def nii ñëpp dañ leen waroon jàppale ma di leen déglu dégg nga euh, di leen bàyyi xel ndax lii lii lii mooy li nga xam ne si mooy yee nit ñi mooy jàppale nit ñi. Hmm. waaye nag nit nag euh, yàlla yàlla daal mooy mooy doxal noonu mbiram. maa maa maa ngi jégalu baax dama xam naa dafa catee. Euh, maa ngi nuyu Mohamed Ndiaye di la nuyu yow sëñ Pape Demba di nuyu nekk ci biir ta xam kaw ma seen tur wax nan la jégal. jërëjëf Mohamed Ndiaye léegi nii rek maa ngi sëñ Moustapha ñoo yenn sànq rek. alhamdulilah alhamdulilah fasaale bu baax Baye Fall. <laughs> Eh, yow fii la nekkoon Italie gii la nekkoon. Mhm. waaw doon koo xam ni wax dëgg jàll ci xew-xew sëñ Tuubaa laa ko xamee. koo xam ni bu duggee ci daayira bi la muy def mooy toog jàng alxuraan ak jàng xasida mm-hmm. daan daan yittewul lool nag ñu taxaw bu baax an saar bi mooy daayira tubaab bi ndeysaan Pape Demba cest pour pour wan la que ni actuellement nii mu tuddi euh, que fi ñuy teg suñu tànk du foofu nan la sëñ Maam Moor mën a reconnaître an saar ay tubaab yoo xam ci réew mi lañu tuddee xonk cooy yoo xam ni on peut les mettre je ne dis même pas au devant waaye ñu jaxasoog ñoom ba mel nii bu amee ñoom indi seen contribution. Mm-hmm. te pourtant ay tubaab la ñu ci réew mi doon italien. yoo xam ne bu demoon tey au niveau de la Kasura ba ñu. ko bàyyi seen mbokk bàyyi seen histoire ànd ak ñun. waaw ànd ak ñun bu ñëwee ci daayira yi doo dégg ñu làkk italien yi. suñu suñu dañuy xëy de huit heures jusqu'à six heures du matin wala fa la làkk. donc ñun intégré wu ñu kenn ci suñu biir bopp. te pourtant ñoom ñun li ñuy dund ñoom lañ lañ bëgg dund waaye nag. am na ci benn ñaar ñett ñoo xam am nañu fulla ak seen fayda gu daje dañ leen di accompagner say tout le temps ndax Serigne Moutara daan wax ni benn nit rek bu jar bu jar a tuub jaral na ma jël avion ñëw ñëw saay ba Italie kon jëmm ji dafa bokkoon ci ñoom daañ leen jàppale moo dafa doyaat bi ba ko déggee donc vraiment ma ma am ci mbégte lool di ñaan yàlla Touba boole ci mu ñuy suivre ba Touba allah dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf Pape mel na ni tey jii moom xawaabal nañu daanaka quarante cinq minutes ma ma joxaat leen kàddu gi rek ñu tàggatoo te joxe maanaam dernière instruction yi rek euh, euh, te te ñaan Pape sëñ Pape waaw waaw waaw sëñ macha allah ndax xam nga émission bi moom euh, dafa dafa dafa alaadaw mais mën nañ ko waxee noonu ndax dafa génnee yeneen i Mhm. yeneen xalaat ndax yi fi génn euh, au dela de coronavirus bi mhm. am na yeneen yu ci génn yoo xamante ni sax benn bu ci nekk rek mat nga émission mhm. euh, di wax ni euh, li li li ñuy émission bi yëpp yàlla seede na ni fii ñu toog nii ñu ngi jot ay communiqué ñu ngi jot ay yeneen ak yeneen Autriche rek tëj na bépp train buy jógee Italie di dem Autriche waaw kooku déjà Euh, signal la signal la non seulement pour euh, ñun suñu autorité yi mhm. euh, lu ni mel <laughs> noonu suñu président wala suñu ministre yi mën nañ jékki rek defi ni fii dafa am benn mhm. extrémité boo xamante ni dañuy dañuy def barrière et cetera donc il faudrait que te loolu pour mu mën a am il faudrait que autorités locales yi fi nekk ñoom ñu def benn jéego xam Euh, dans les zones yi nga xamanteni dañu nek nekk euh, en quarantaine ñaata sénégalais ño fa nek yan sénégalais ño fa nek ci yan condition lañu nek ak jafé jafé yu ñu lu ñu amul ak lan moy seeni soxla mm-hmm. euh biñuy tok ni amna bind na la message parce que bind na man biñuy tok ni di def émission rek mm-hmm. bind na en tant que président CADES il a bind euh, le premier secrétaire de de l'ambassadeur dañ ci baa laaj ko ndax am nañu information par rapport à ces sénégalais là euh, nee na il va me reprendre mm-hmm. donc maa ngi déglu aussi di xaar yan euh, information lañ ñuy jox par rapport au sénégalais yi nekk foofu mais mm-hmm. li ci des nag mooy ci gàttal rek euh, code de conduite bi ñun danoo war a topp ndax am na ku ko wax sànq lu dul doy loo ca am dalay doy Euh, ñun Italie gi ñu nekk loi yi ñuy def mosuñoo def benn loi boo xamante ni dafay nekk à notre faveur loi yi ñu teg nii euh, di ay décret d'urgence yu ñu génnee euh, génnewuñu ko ndax daayira bi génnewuñu ko nag leneen mais dañ ko génnee d'une manière générale mm-hmm. kon ñun dañoo war a topp ci loolu mm-hmm. topp ci loolu am nañu it ñun ci suñu wàllu bopp à notre interne beneen liggéey bu ñu war a def Kamili, yi dañ koy jallale ci eh, whatsapp bi ñu wacce kaamil yi eh, bureau keur señ bi bu ñuy réunion eh, jamono doxna na dox ba nga xamanteni ñu ngi ni ñun di def émission te kenn gisul sama rom ya nga toscana ma nga parma ñi nga milan kele nga ba touba te ñoo ngi joko di waxtaan kon war nañu mëna def sax réunion ci vidéo conférence yi ci call conférence yi mën jël ay matuwaay ak yeneen ak yeneen baña di dajalo tax loolu dafay bokk ci sàmm sunu bopp sax ñun nag far hein? euh, beneen bi ci topp it un appel bu ñuy lancer à nos autorités par rapport ak dajaloo bi ñuy dajaloo ambassade demain matin ak gannaaw suba nañ ci jël ay provvedimenti le plus rapidement possible créer benn euh, numéro téléphone boo xamante ni d'urgence pour que ku am urgence nga woote ca ñu dal di lay jël ñoom que numéro boobu actif na actif aussi euh, sénégalais yi aussi ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a jóg rek bëgg a dem bëgg a dugg ci train yi ak yu demee noonu nañu def attention et puis nañu éviter aussi di di di wërale yenn vocal yi di wër ci ay whatsapp ak nangam nangam di yëkkati benn alarmisme boo xamante ni toscana gee alarme amu fa sicilia gee alarme amu fa donc y a une zone boo xamante ni épicentre bi foofu la nekk parce que message yi ñuy jàllale dafay dem ba Sénégal muy indi benn jaaxle ci waa Sénégal di waxe aussi benn sénégalais bu mu mënti doon nga am loo yëg sa yaram jëlal nga woote comme ni ko sëñ waxee jëlal nga woote mais bul forcer nga ne damay dem damay ñibbi damay dem Sénégal nangam ak nangam di am looy nëbb boo ko yóbbee indil indil musiba naaru laay indil ko euh, indi leneen lu kenn xamul donc vraiment ñu ngi euh, euh, def appel à un sens de responsabilité ci bépp taalibe bépp jullit ak képp ku doon ngay sénégalais jëlal sa matuwaay jël matuwaayu njaboot gi euh, Friuli Venezia Giulia jël nañu ñoom it matuwaay te pourtant province autonome la mm-hmm. pourtant jël nañu matuwaay léegi la sànq la la ko soxna Fatou yéen nii ñoom jël nañ matuwaay tëj nañ école yi Emilia Romagna Bonaccini tëj na école yi tëj na lépp jël provvedimenti parce que gouverner c'est prévenir mm-hmm. donc système de prévention la ñu toll donc prévention rek ci nga mën a xeexee lii ba gis patient zéro bi pour mën a xool li nga xamante ni moom nga mën a culpirer cent cinquante contact ji euh, c'est pas extrême mais gaaw na gaaw boo xamante ni ci évolution bi ci ñetti mort donc li tubaab yi di def ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan kon ñu nit suñu wàll kenn ku ci nekk ca wàll nga ne na nga ci góorgóorlu def ca loo mën def prévention yi masquerine yi euh, wàññi lieu euh, afolaat yi euh, donc kenn ku ci nekk rek wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaan nga def sa prévention ci anam yi nga xamante ni moom nga ko amee sëñ paap ci bañ a guddal di jox nit ñi dox daje rek beneen dimanche incha ci yeneen item jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Ablaye kàddu gu mujj gi sëñ Ablaye sëñ Ablaye Diop dafa mel ni daa kon ma joxaat sëñ Amet rek sëñ Amet bismillah kon xam naa ma jox la kàddu ma joxaat la kàddu gi rek nga. xam xam naa dafa mel ni sëñ Ablaye dafa dem ci waa defar mburu mi xam nga mburu mi defar gudd yaakaar naa ne pour suba gi moo ko xaw a jaaxal. <laughs> Eh, sëñ pap man de li ma leen di ñaan. Mm-hmm. ndax it euh, nit ku nekk ak la ko sunu borom jox. Mm-hmm. Mm-hmm. naam dëgg la de ci biir rek nga bokk et mais pap dafa am nit ko xam nga. sëñ Abdoulaye dalaan wax naan nit ku ne nit koo xam ni saa yoo yëkkatee sa am ñu la déglu danga war a wax. kon yow mursan nga ci ña ngay waxal. man li ma jàpp mooy Pape Demba mi nga xam ne moo nekk Toscane. n'a aucun que à ce que communauté sénégalaise bi bañ wéyal seeni activité mm-hmm. li may ñaan li ma lay ñaan man Ahmed Ndiaye yow Pape Demba laa bëggoon nga woo suñ suñ Fallou Mbaye suñ Fallou Mbacké ma mm-hmm. ca xamal mm-hmm. ko Mbacké ñun de dañoo nekk ci réew mi te du ñuy opéra dañu nekk ci biir syndicat di liggéey ñoom te am information yu bari yoo xam day yegg ñun bokk na ci information yi di yegg si lépp luy xeetu ndaje dañ ko tere ci réew mi te li ko waral mooy feebar bii fi xew lii ma li wax ji yow Pape Demba boo ko waxee yow la ñuy gën a dégg ka Ahmed njaay mi nga xam ne dafa bokk ci biir daayira bi. Mm-hmm. li dégg mooy yow amoo ci benn intérêt ngir lii lii euh, lii bañ a am te waroon am. mais yow fa ngay jëlee ce sont des sources très sûres. Mm-hmm. que tu fais partie donc des Sénégalais yoo xam ni am nañu benn niveau bu ñu fo bu ñu toll. kon su Pape Demba waxee waxewul parce que. déedéet dafa wax parce que lii mooy réalité bi. te itami ni ko señ bi waxe legi pap Demba ma nga toskaana kon mom famu nek ma sha allah yalla sun borom sambalen dara xew fa donc mom day alerter walu Lombardia ya. mhm. li ci alerter walu waa ya, mën nako def à travers les associations mais association li ñuy bax bax daara yeen ep dole mhm. mais daara yi nak malheureusement ba legi dafa am ben ben ben mode de fonctionnement bu ñuy am bo ñewé am lo xam bo nga wax dañ naan ah ki damay jaay ni ma dama jang dedet parce que bu fekkee ne Ameth Ndiaye mi nekk ci biir Lombardier bi véhiculé na am na ñu koy dégg loolu moom xam naa ko waaye nag day gën a am poids bu fekkee dafa jóge nag faneen foo xam ne kii kii kii di wax bokkul ci biir zone bi moo tax ma lay ñaan yow dem ba ñëpp xam nañ la macha allah. Mm-hmm. yàlla su borom parce que. def daf koy def suñu borom moo la ko dimbalee nga koy def. kon nag dama jàpp ni warteef la ci yow yow it ka nga xam ni moom nga war a waxal muy benn autorité boo xam xëy na suprême la nga woo ko ni ko mbàkkee lii de mooy li xew ci réew mi te damaa gis ni kër sëñ Tuubaa gi ci Brescia li ëpp ci programme fa lañ koy defee sëñ Fallou sëñ Fallou Mbacké euh, c'est le euh, mu tuuti euh, mooy c'est la personne morale au niveau mu tuuti au jamia bi voilà waaye waa ci jamia bi kon moom am na loo xam ne bu ko yëgee boo ko defee sëñ Fallou Mbacké def ko Modou Mbow mi nga xam ne moom mooy président Modou Mbow c'est un intellectuel xam na li xew mm-hmm. Modou Mbow yaakaar yaakaaruma ne moom donc den nager donc dans dans ñaar ñooñu boo leen waxee yow l'information yow wàcc nga mhm. wàcc nga wàccaale nga képp koo xam ne war na jàll information bi ndax mhm. kër sëñ Tuubaa gi ci pontifique booy xool 90 pour cent manifestation yi fa lañ ko defee mhm. mais man li ma gëm li ma gëm man ak ak ak ak lii ma gisugum nii en 2020 mille vingt il n'y aura pas de il n'y aura pas ça de manifestation autorisée au niveau de parce que mooy li mooy li Abdoulaye Diop wax léegi actuellement amagul ñu vaccin boo vaccin boo xam dañu ni mooy faj jàngoro bi mm-hmm. sama mbokk wax na ko léegi genre sibiru la pourtant influence bi li muy rey par at moo ëpp. ah mais nag a nag pandémie ak pandémie ak influence bokk ñu de. bokk non non non laa bëggoon ñëwee ñëwee. parce que mm-hmm. bu dee influence bi boo feebaree ñu la dama nga jël antigrippe wala ñu la dama ñu defal la vaccin loolu ñoom amaguñ ko say ci feebar bi. Mm-hmm. ñoom ñu def rek donc mooy defe noo xam ne donc dinañ mën a xëy na euh, contenir contenir say maladies yi yi mm-hmm. say maladie bi donc fexe ba fi léegi fan yàlla na suñu borom def taw feex ci mbaaxum Sëriñ Tuubaa mm-hmm. lépp wër dëgg yàlla yam fi euh, mu doon loo xam ni nag dafa mel ne suñu borom kon mi ñuy fàttali boppam ndax yow loo xam ne mi ngi nii te mu ngi dugg sa biir te ñëpp ngi daw tout le monde est kon mel na suñu borom mi ñuy fàttali boppam mm-hmm. xel bobu nak yalla bu mu yag nak ndax sun borom fu yagge di la fàtte boobu dama yaakaar ni kon lenen eh, lenen lenen leneen lay jur waaye daal Pape daal lii ma la wax dal moom maa ñaan nga yalla ak jëm mu ndaxa mi nga xamni mo tay inshallah so ci sëriñ ñaar yi dal bo ko defee mooy señ sëñ señ eh, eh, mtul sëñ Fallou Mbacke mm-hmm. ak Modou Mbaw ñom ñaar mm-hmm. xam nga leen jeur sefa nga woo leen en que responsable sénégalais mm-hmm. néna la c'est pas le c'est pas c'est pas le consul ni l'ambassade qui va seet sa qui va faire ça yow yaa mun leen boo ci paree na pare nga ci nag léegi na ñoom bu fekkee nag ñoom ils ont dit que ni bon dañuy kon ñun l dañuy continuer ça les activités bu ëllëgee lu xew kat rajo Xassida online avait déjà averti euh, ah. ñaan nag yàlla na suñu borom sam bu baax dafa leen taw ñu ngi sant bu tey di jégalu ñëpp nag pam xam nga wax dafa xaw jafe tey tamit buñ lay laaj ci loo xam ne du sa domaine aussi du loo xam ne lu ñu maîtriser la waaye ni nga waxee rek xëy na luñ dund la xëy na loolu moo tax waaye waxew ñu parce que dañoo jiite mbooloo wala waxew ñu parce que dañoo am xam-xam ci mbir mi waaye xëy na dañoo nekk ci biir noyau bi. Mhm. dund ci loo xam rek moom la ñu bëggoon a partager ak mbooloo mi. Euh, di ñaan nag euh, wax dëgg yàlla yàlla yàlla doole dimbali ci barke Sëñ Tuubaa ndax ñaan moom am na. Mhm. waaw euh, wax dëgg yàlla Ebola bi mu xewee Sénégal yëpp tiitoon nañu. dafa mel na ni ko sëñ Abdoulaye Diop waxee Cheikh Sidi Matar na ko yàlla fayal génne woon na xasida goo xam ni. Mhm. ñu ngi naan xasida ko Sëñ Tuubaa bi la wala bu sëñ Baalu. Mm-hmm. lu mu ci mun doon njabar suñu Tuubaa gi bind te googu Cheikh Sidi Matar Mbacke waxoon bu ñu koy jàng moom balaa déer Sénégal waaw ah, kon mel na partagé nañ ko ci biir réseau yi ñëpp jot nañ ci kon saa su nekk nañ koy nañ koy duus incha allah ñu ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatuhu maaleykum salaam jërëjëf macha allah macha allah sëñ Ahmed tey jii daanaka ñi fi doon wax ñëpp du kenn koo xam ni am nga expérience ci wàllu santé wala ci wàllu maanaam li ñuy wax émergence dafa di rek tey dañu toll dañu dund bés boo xam ni mënee suta bañ a wax ni ko suñu jëwriñ ji waxee woon ci bésu it bi weesu rek ki war a wax bu wax jotee dafa war a wax ñun ñu yore bunt boo xam ni daanaka askan bi yëpp moo ñu déglu tey jii maa ngi suivre suñu audience mu mel ni audience bi ni mu toll tey jii dafa mel ni auditeurs yëpp daanaka dañu concentré wu ba sax am na mbokk mbokk mu nekk biir Euh, dëkk boobu nga xam ni dañu leen nekk mettre en quarantaine defe naa ni euh, euh, woo woo na ma envoyé ma message benn def naa suñ Cheikh Diaw la tudd envoyé na ma message expliqué ma situation bi ñuy dund en quarantaine ni ma vendredi lañ leen woo ci bëccëg ñu leen jël si leen seeni doom ñu jël si ko nee na ma daanaka pour mu am lu mu lekk sax il a fallu mu génn pour mun a dem jëndi ndax zone boobu yëpp jeex na bi ñuy wax daanaka boobu au moment ñu ngi wax ñu ngi suivre euh, euh, maanaam su su si événement yi ba fi mu ne nii daanaka doomu bu Milano tëj nañ ko. Euh, hmm. carnavalu Venise tëj nañ ko. Hmm. Friou Friuli Venezia Giulia lépp luy événement bloqué nañ ko fa kon nga xam ni daanaka économie italienne moom moo jëm ci économie nord bi moo jëm vers la paralysie tey jii xam nga bu ñëwee. li nga xam ni eh, dafay indi xaalis euh, zone yooyu yëpp dañ leen a tëj asamalaat nag loo xam ni ñun dañ koy def nekk ay gan ci dëkk bi buñ leen naree indil problème dañuy woowaat rappeler ñu à l'ordre euh, euh, tey jii nga xam ni daanaka boo xoolee suba yeneen yeneen dëkk yi dañ koy suivre Conte léegi nii rek déclaré na Italie lu ñuy wax émergence nationale ndax du caaxaan lo xamni euh dañ koy dañ koy toutil ba nga xamni euh euh, euh euh ndax it li nga ci wax mo ci am daf ñu bett problème bi moy ñom ñi ko doon wacc mais ni mu leen duggé foogee wuñ ko ndax bo xolé jamono ji ñi mu dal moy ñi nekk ci biir santé loolu lañu waxagul mais c'est le vrai problème parce que ñi ñi génne maladie bi moy les infirmiers xeet ñu nekk ci santé bi parce que absolument euh, ñi faatu ñëpp hôpital lañu ñu Mm-hmm. Mm-hmm. te bi ñuy faatu ci démb ak tey la ñuy doog a xam ni jàngoro ji la amoon. Mm-hmm. donc créé wu ñu woon li ñuy wax euh, euh, euh, task force bi nga xam ni moom mooy bu situation bi amee dafa am ay ay pa ay paramètres yu ñu war a teg. teg zone off waa jël nit ñi ña fay dem nga xam ni dootuñu génn mais daanaka boo xoolee am na ñoo xam ni ba sax am na koo xam ni daanaka jóge na Lombard dem Sicile fi mu ne ñu ngi koy wër xamuñu. Euh, euh, fu mu jóge kon mu mel ni mbir mi loolu moo ko moo ko moo ko xaw a indi jafe-jafe waaye ñun it luñ ci mën a wax rek moo di suñu mbokk sénégalais yi dañ leen di yee ci ñu def attention tiitaluñu kenn créé wuñu benn alarmisme waaye li ñu bëgg mooy ñu xam ni jamono ji lii bu xewee euh, am na ñoo xam ni yàlla dafa dogal ay jaaykat lañu il faut ñu génn dem wuti xewal waaye lu ci mënti am rek nañu xam ni dafa am ay comportement yu ñu war a am am na ay barab yoo xam ni ah dafa naxaree tey jii lu mel ni ay métro nga xam ni dafay am ay euh, moment de concentration xam naa ni sax dina am ay changement yu ci am ay ay bus yi pendolaar yi ak yi foofu mooy moment yi nga xam ni daanaka fa la nit ñi di jaxasoo lu bari euh, ñu seet ba buñ fay dem lu mënta ñàkk ñu fagaru fagaru goo xam ni euh, bu ñu dellusee ci kër gi du am lenn lu ñu ragal waaye lu ci hmm. am rek dañuy xool sunuy loxo fañ koy teg maanaam euh, di raxas sunuy loxo bu baax xeetu xéwal yi nga xam ni lu mel ni ay lujum ak yooyu ñoom sëñ Jóob yi ñu bëgg balaa ñu koy euh, ñu jël genre désinfectant yi ndax tey jii looloo tax lu mel ni amokina xaw a jafe ndax tey jii yu mel noonu euh, daanaka am na ay procédures yoo war a def waaye lu ci mën ci am rek bu ñuy seetaan télé italienne dinañu la teg ci yoon waaye léeg-léeg tamit sunuy jafe-jafe moy da ngay gis kër go xamni suba ba ngon théâtre lañu sétane télé sétane ñu seetaan daanaka du ñu xam actualité li xew ci dëkk bi jamono yi nak bu luy xewé da ngay xol sa dëkk xol sa gox ci ji régionale ban ban yan yan yan yan prédisposition lañu jël ban taxaway la la mbokk yi wara wara am ba ba ba ba lépp wara mëna mëna mëna mëna mëna safaro di wax tamit suñu borom rek ndax ñun mom ay julit lañu ay murit lañu Euh, bu ñu sañoon lépp luy am rek dañ koy jël wékk wékk ko suñu borom waaye it fas nañu yéen it euh, comme ni ko suñ amet waxee euh, ci ci ginnaaw kades incha allah dox doxin boobu ba taxaw accompagner lii nga xam ni moo di communauté religieuse bi ndax du murit rek tey jii tijaan yaa ngi fi li kàmbali woon semaine prochaine ba ba mois de ju juillet defe naa ba ci koor gi tourné euh, euh, koor euh, gi Cheikh Cheikh Sidi euh, euh, kii nu ñu koy waxati doomu Sëñ Abdou Aziz Si de fi ñew at mu jot Oustaz Aliou Sall mi ngi ñëw donc mu mu am ay ay ay ay ay ay événements yoo xam ni daanaka mën ni samedi bu nek amoon ay événement te jamono ji wax deug ñu tollu dëkk bi tollu na tolluwaay way bo ni ni Italie amé comité de crise non le comité sénégalais wara amé tam comité de crise bo xamni ñi ko war a dox donte du ñu daje sax waaye war nañ mën di daje ñu dajeeg suñu ay autorité ba mën a accompagner communauté bi di leen teg ci yoon ba nga xam ni dañuy joxe ay information yoo xam ni dafa jóge ci de sources sûres ndax tey jii information bi suñu Amet Njaay joxe wax dëgg fa yàlla bi ma ko déggee sama xol dafa bëgg dama dama ni nii la un euh, responsable war a def suñu laay Diop moom fa mu féete fa mu ñuy féete rek la ñu féete waat ndeysaan. génnee <laughs> Eh, eh, eh, jàngatu mag ñi génne téere sëñ bi ni ñu nii kat nii boo ci tegoo maanaam ku nekk fa nga féete boo boo boo génnee fa nga mënee rek joxe sa sa sa sa contribution yaakaar naa ni comme comme communauté bi dana si war a mën a jariñoo waaye ñu bañ di ragalloo nit ñi bañ indi tam psychose boo xam ni tey jii buñ ñu déggee gars yi surtout waa Sénégal yi ndeysaan ñoom it seen fit dafay jóg te it wax naa wax dëgg fa yàlla am na noo xam ni buñ ko comporté woo yàlla mën na ñoo defal sutura def naa ni daal bu sëñ Ablaye nekkee ci ligne bi dama koy jox rek mu tëj defal ñu ñaan tey jii wax dëgg fa yàlla <laughs> euh, te ma wa ma ko nag na bañ na bañ a inquiété wu ndax yaakaar naa ni suba mburu dina am ab Ablaye kon ma joxaat la kàddu yi nga tëj bisimilah may ziar nag bu baax sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall tey jii ndax vraiment hmm, xam naa ni condition yi jafe na ndax tey ku daan def une heure trente ñu def daanaka deux heures trente waaye nag euh, euh, euh, waxtu wi ak jamono ji moo ko laaj moo tax ñu ñu demee nii kon sëñ Ablaye ma jox la kàddu gi nga tëj bisimilah. jërëjëf jërëjëf sëñ Sot wax dëgg yàlla kii bi am na solo lool am na solo ñu def li ñuy wax symbiose rek kenn ku ne bu amee bu indee li mu am rek dañuy dañuy mën a am lu bëree bëri xëy na. mënu dajale lépp waaye bu ñëpp dajale rek nga am lépp te l'homme est le remède le remède de la euh, proverbe ba doon wax maanaam nit nit tey garabam daanaka suñ borom moom tënkal ñu ko rek ci innamal mu'minuna ikhwa waaye fa aslihu bayna hawaykum euh, ndax euh, suñ borom moo fi indi jàngoro ji waaye moo koy saafaraat nag moom nga xam ni moom mooy borom jàngoro ji moo ko fi jëlee dañuy wax ni seytaane seytaane daal bu la bu la bu la bu la bu wut da ngay dem ca boromam doo ko sàkk looloo waral auzu billahi mina seytaan rajim ab xaj bu la wutee wutee da ngay dem wutali ca boromam boo bëggee mucc waaye boo dawee rek doo ci génn nag jàngoro ji nañ def ni rek yàllaa ko fi wàcce ngir xëy na fàttali ñu boppam fàttali ñu li ñu fi indi muy wa ma xalatu te yeggoon na ci ngeen ma jaamut ma jël leen fi andi fi ñeneen ñu may jaamu ndax am naa yeneen yeneen xeet yoo xam ne jaar na maag ñoom foofu da ngay gis nag boo yeggee ci biir alxuraan sax léegi limaan la afalam yasiru fil ardi maam dox leen ci suuf si dox leen ci suuf si loolu daanaka dafa mel ni kon ñun immigré yi mboog moom lam lu mu ca teg mooy da ngeen mën a gis fa ma jaar rek tooñkat yu mag ya yaakaar naa ku xool Italie gi dañ ci am jàng bu rëy rëy ndax Pompey fi la ne Pompey Vesuvio boobu nga xam ni ci la l'an soixante quinze après Jésus-Christ maam après yonent yàlla Isa ngeen jéggal ma euh, ci la loolu amee woon ndax Isa ñoom ñu ngi tàmbali fi mu toll ñu ci deux mille vingt bi yonent yàlla Isa gane àdduna lañ tambali woon wàññi yonent yàlla Isa wax nañ ñu fanweeri at ak ñett yu kon trente trois année trente trois waaye ginnaaw ba mu tegee ñeent fukki at ak ñaar année soixante quinze boobee jëm soixante dix neuf télévision boobu euh, génn woon euh, doomam bu tàng boobu nga xam ne lépp lu tooyoon lu ne wool na ko te boo gisee eh, ñenn yenn architectes yi yenn archéologues yi di génne ay li ñuy wax tamasil mooy ay ni ñu jàppe ko statue fekk ay nit ñu bëggaloon la mi ngi fii ci wetu Napoli rek ko boo duggee ci Google boo tapé di nga gis ay yu taxaw nga jàpp ni ay statue yu ñu la ci ay xeer fekk ay nit lañu woon te loolu ak mbon rek moo ko andi woon suñu borom wàccee eh, doom boobu mu jigoon ci volcan bi nga xam lépp lu tooyoon lu ne du ko daal di wool gis ni yéen daan jëfandikoo sax ay nen ak yooyu da ngay gis forme yi nit ku mu fekkoon mu tëdd da nga koy gis forme bi ku mu fekkoon nga taxaw ku mu fekkoon nga toog nga xam dafa mel ni lu ñett ci xeer te ay nit lañu kon nag loolu yàlla bu ci suñ borom yegg ak ñun suñ baab maxtaar wante ko léegi li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci suñ biir ba tey rek looloo ko waral moo tax jëflante wut ak ñun waaye bu nu toppoon rek kenn du fi des ndax mbon gi moom yaatu na mooy gi yaatu na kenn ragalutul yàlla kenn du wax ba def ko kenn du jëflanteeg nit ba respecté ko kenn du jox nit ak xam kenn gis nga àqi dëkkandoo kenn toppatootu ko àqi bayo àqi jirim daanaka dañuy lekk kun dénki responsabilité nga lekk xaalis bi kun dénk ab liggéey nga doon ci milliardaire daan jariñ loo fekke donc bari na yàqu-yàqu yoo xamante ni euh, musidoon na fil ardi yooyu nga xam ne mi ngi ci alxuraan nga xam ne euh, yàlla dañu ci artu ba tàyyi mooy tundiku leen di yàq suuf si nga xamante ni dama koo defar ba mu njëkk dafa mel li ñu dal noo ko teg suñu bopp mooy ak tooñ gu rek foofu laa ko mën a yóbbu ngir delloo si xel yi ngir delloo si xalaat yi nañ delluwaat ci yàlla delluwaat ci jaamu yàlla te sellal ko te yéenante jàmm te xam ne ñun ñii di wax nii eh, du xam-xam la ñuy waxee wala martaba waaye jot li ak fàttali ndax fa zakir tan zikra tanfa'ul mu'minin waaye aay boobu dañ koy faral di baamu te duñ yegg ci ba ci tege tak ñoom ñaar ñoo taxaloo eh, ndax aay boobu bu jeexee rek dafa mel ni suñu borom dafa wax ak yonente salaam ni ko fàttali ndax fàttali dana jëriñ ci gëm ni yonente bi da koo laaj ni ko waa lan laa war a fàttali waaye aay bi ci tege mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun ñaari ay yooyu ñoo taxaloo mu mel kon loolu ngir loolu ak la boo xam ne yàlla ngeen ko doon wax mu wàcc fi wa sallam yërmande ma tax mu wàcc fi ñu baax ñi ba ci tedd kii di Cheikh Amadou Khadim fekk na bu ci seenu njàngale rek mën na ñoo mucc ñu japp ni li jangoro la rek jëf yàlla indi ni fi andoy yeneen jangoro yi waye nak ni mu songé italie nga xamni da ko daldi di malmené euh, yobbu ko ci panique parce que ci panique lañ nek parce que euh, amna na ñu fi dund euh, fanweeri at ñaar fukki at ak mais ni ñuy songé marché yi ba mburu sax amatu fa ndox mo naan amatu fa yaakar na ci ñaar fukki at kenn kenn musu ko wé gis kon panique amna waye nak ñu baña paniquer ndax mbir bu la dee dàq xamoo lu mu doon gisoo ko nga jékki-jékki sambu sambu soo xel mën ngaa dajeeg moom ndax xamoo li lay dàqu moom waaye nag du teet nga fagaru ah di bàyyi xel information yi nga xam ne réew maa ngi koy joxe ndax Pape Demba wax na ko léegi du médias sénégalais yi ñoo lay jox information yi ci réew mi ñoom ci réew mi la ñuy tànkee kon yaa ginnaaw yaa ngi biir réew mu nga tànkata naan rek nañuy jàpp TG 24 wala TV cinq wala France 24 wala euh, Rai News 24 nga xam ne ñooñu. continuellement à la minute à la minute lañ lay indi les informations fraîches doo dégg fenn doo dégg benn doo génn kenn ku la xamante ni dalay dalay dalay mal informé wala mu désinformé la ci loo xamante ni mën nga ko tànk dañ bàyyi théâtre yi ñuy seetaan ak ci xoolee lu bari ci suñu njaboot gi rawatina soxna yi dégguñu sax italien ndax théâtre yi ñuy seetaan te jëmuleet fenn ñoo xamante ni daanaka li ñuy wax teguñu ko fenn te lu ci bari ñoom dañ ko teg ba noppi bàyyi la fi jël sa temps yow nga topp ci di ngar ngari di ngar ñoom ñu tëddi nelaw nga rey ci sa temps boo xamante ni daan am loolu benn jëriñ ci ay reetaan ak kaf rek nañ ko bàyyi ndax suñ borom bindul asamaan ak suuf ngir fo maa xalaat naa asamaan waati wala aduma bay luma laahi bin ma asamaan ak suuf ak li ci diggante ngir po kon andi woon ci ci ci àdduna nañ fexe contribuer ci àdduna bi mais doon ñoo xamante ni sëñ bi société de consommation rek lañ Sénégal Afrique en général société de consommation lan lañ war a bàyyil fii suñu doom lan leen war bàyyi suñuy sët lan leen bàyyi les générations à venir amul temps ñun dañuy consommer rek topp ci ginnaaw nasaraan si daanaka kon nag boo dee dee nga topp ci li ñuy def mënoo ko jumtukaay yu ñu yor mënoo ko da ngay topp ci loi yéen la tëralal mooy buñ fi jéem a créer benn problème boo xam ne dañ naan màggal sàngam jot na mënuñu ko ñàkk a def déedéet déedéet fàttaliku nit ku baax baax na ndax a zikre salihina tanzulu tanzulu rahma fàttaliku nit ku baax suñ borom la fi wàccee yërmande mais dans quelles condition lañ koy defee ginnaaw ñoom seen diine ji nga xamante ni fii la juddoo fii mooy berceau de la christianisme du christianisme ñu dem ba ni ñoom sax bëggatuñ sax rassemblement yooyu am kon rawatina beneen boo xam ne dafi wàlliyaan bay bëgg a jël seen diine jooju kon buñ ko nangu kon buñ leen kereel ali bi boo xam dañ ci jaar mën a teg suñu daara yi wala ñu tëj suñu daayira yi te bu boobaa yëpp ñun rek ñoo leen koy teg kon nañ delloo siwaat xel yi te xam ne lu jiwoo jeexut jugu bu buñ demee ba situation bi ba calme ba alarme alarme bi jeex ñu delluwaat ca lañ nekkoon ndax ñoom it dañuy daal di delluwaat ca lañ nekkoon bu boobaa nag liberté yi mooy parce que dafa am loi yoo xamante ni day daal di bafoué les libertés loolu amul kenn ko am c'est-à-dire xam nga bokkoon nañ constitution la li naan ak liberté de de circulation des biens et des personnes mais tey jii charte boobu maladie bi tegg na ko teg ko fële tegg na ko teg ko fële kon lu ni sa sa droit la rek ah, nga ne il faut ma def ko parce que noonu am na leneen lu ko ëpp doole li li suñu Moussa Saliou daan ko misaale ci loi bi nga xam ne mooy dox Touba ak loi bi dox ci biir Sénégal ndax dana ko boo demee poste Thiaroye am na benn feu rouge boo xamante ni benn maa nga fay teg gendarme woowee fo bi mën naa wert mun la taxawal ko bi mën naa xonk mun la ñëwal nee na jadi pour expliquer le lan moy sa droit ak bu droit bi amé est ce droit bi manam toujours day dox wala déet amna fo foo benen ni loi bo xam mi ngi ci kaw moko man bu ko bu ko fekkee da koy jalgati moy li ñu nekké problème amna population bi ñepp ci tit ñu joxe ay norme ni nangam lañ koy défé nga dikk ni bëgg andi sa position ni danaa fi andi sama nangam ndax sama magal gi mënta weesu mënut a ñàkk ah, sëñ bi lool nak yalla diggalul ko ndax diine ga am na foo ci xamni sax bo ci tollé lañ lay def loolu koy def ba nopi donte dafa aram te boy yegge nga delluwaat ci fi tol ni nan dajale won nit ñi ca ca juróom ndar ba ñen ñi nga xam ne lañ tontu ni jàjju ba tuba bi ni moy lan mu ni ñu ni moy julli bay ak jang mu leen lool andi wo bi da ngeen di signé ni yalla amut alquran amut yonent bi dikku fi ma menn mag xelal leen li leen déngaan nan signé li te delu suñu kër bu ñu yegge dogo a jaamu yalla do loola yalla du leen ci top dara ndax buñ ko defutoon xaru lay doon ci ñom sëñ tuba ma mëna a ko foofa moo loola moom bu weesuutoon loola kon moom itam suñ borom daan daan ko comme ci loolu lañ tool nañ bàyyi xel réew mi ñu nekk te xam ne ay loi la ñu war cee tënku te suñu njariñ rek lañ ci jëlee nañ ñaan nag suñ borom jëlee bi jàngoro ji nga xamante ni moo ko fi indi du de lenn lu bokk ci junneel sama waat wala arte ndol geej gi leemu ni tekk ne bu ko neexoon mu wàcc ci kaw suuf si kon moo ko jox ndigal ni ko bul bul jël gi gis nga ñaari géej yi dajale géej baxree ñu jooju muy wax nga xam ne am na benn barrière bu mu doxale seen dig nga xam benn gut bu jóge ci géej gi dal ci géej ndigal dong la ko jox kon nag na joxaat ndigal feebar bii ñu koy wax coronavirus mu delluwaat cay mbokkam bu mu laal benn jullit waaye bu mu laal sax benn mbindeef nag ndax wàññiw ko dara moom moom lépp moom lépp ñu ngi leen dégg lu baax di leen baal wax lépp lu ci dëng rek nga xam ne sama jëmu joxe bu waaye lu ci jug rek haga rahmatu min Rabbi la ñoo ngi sant ñëpp di ziare ki doon wootee tuuba suñu xel dal na ci di déggee ku ku wootee tuuba loolu sant nañ ci baax baax di ziare ñëpp di leen baal wax ab dem ba maa ngi dégg lu baax baax di leen sant bu baax ci taxawaay bi di sant sëñ Modou Mbaye Thiam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh عن به إلى الخيرات وقال في دلائل الخيرات مسرعا به إلى الخيرات وقال في دلائل الخيرات مسرعا به إلى الخيرات أول ما أقول في الصلاة على النبي سايب الآيات المد المفرد مسلما على الرسول المصطفى وآله وصحبه والخلفاء